bismillahi rahman rahim asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu way mën féete ci àdduna bi te duñu seetaan ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média ñoo ngi nuyu suñu président directeur général ak mbooleem directeur ci biir kër gi wéyal nuyoo bi ci wetu askan wi dem ziyaara ñi nga xam ne yàlla dogal te nu sopp ko ñun itam macha allah yàlla dogal ñu doon suñu ay kilifa diine ak suñu ay kilifa aada ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen balu àq itam di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yokk mën gi yàlla may nu gudd fan yàlla yàggal ànd gi ñu yàgg ànd ak yéen ngeen yàgg ànd ak ñun ci jàmm ak teraanga macha allah yal na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu loolu paase itam mbokk yi. dinañu nuyu ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax di leen massalu coono toogaay yooyu yàllaay dogal waaye bu dogalee ñu nangu rek dafay daal yomb ci ñun toogaay bi foofu yàlla na doon yokkute ci yéen yàlla na doon càngaay te bu ngeen fa jógee lépp loo xam ne daal teg ngeen ci loxo yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na ko yàlla barkeel ñuy nemmeeku ba tey ñi nga xam ne bu ñu toggee fii di def émission ñoom yàlla dafa dogal ñu nekk ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi noo ngi leen di massalu coono bu baax a baax di leen ñaanal yàlla wérgu yaram bu dellu si te yokk macha allah yàlla defal nu ko te bañ a tëral kenn waaye ñi nga xam ne itam ñoo leen gunge ñooñu dañ leen di wax mention spéciale nanu ko baaxooy waxee li tax mention spéciale nit ki nga xam ne dara jotu ko bu dee dox soxlaam bëgg na ku ko gunge sàkkatuma la ki tëdd ca lalu hôpital mënalul boppam dara ah ku tabe ku ne yàlla la gën a tabe yal na yàlla fay yal na yàlla fay ñu ngi leen di baalu àq di nuyuwaat bu baax a baax a baax sunu xalifa généraux yi fu ci waay mën a féete ñu ngi sukk sa di sàkku ñaan di ñaan yàlla yàlla dolli jàmm ci Sénégal yàlla dolli jàmm ci kër yi yàlla dolli jàmm ci xol yi bu ko defee rek ànd neex macha allah. ah di leen wax ne rek yéen a ngi seetaan seen émission wareef bu nu waxee wareef ñun ak yéen la yéen ak ñun la macha allah loolee tam suñu xel dina dem ci ñi ñu baaxoo woon di àndal tey ñu nekk ci njëggalu suñu borom njëggal googu yàlla na ko suñu borom yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy fàttaliku bu baax a baax a baax. sunu maam maam Cheikh maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum di ko sopp bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk leeram yal na yàlla jéggal ko yàlla jéggal bépp waay doo dawda bu fa nekk mm. Adja Linguère ñoo ngi mm. kontaan ci anam yu bare bare bare waaye tey balaa ma lay nuyu di nuyu xaritu jàmbur daal mm-hmm. damay nuyu oustaz Tayib soose bu baax lu war la lu war la oustaz kontaan ci dalal la <laughs> saa su ne ñu lay waxati bisimila xam nga ne thème bi macha allah nu ngi doon waxtaanee ci waajal koor mm-hmm. ñi sant Diop dëgg dëgg na Eva. Mhm. bu koor gi dee ñëw dafa am dafay mel ni daal. Mhm. seen yaram yi day fasu. voilà njaayeen yi ñoom waxaguma sax seen wax. Mhm. waaye ñu ngi lay wax bisim bisimilah di wax ndoy baan itam bisimilah. Adja Liggéey. wala yow itam kontaan nañu ci sa teewaay bu baax a baax. Eh, eh, oustaz. waaw ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu di la jox kàddu gi la ñu ngi leen di fay di am mbégte toogal ak yéen. parce que alxames yi paase yëpp dafay fekk muy am ay événement loolu dëgg la xëy na loolu la mais ñu ngi am mbégte dellusiwaat. Mhm. Euh, di toogaat ak yéen. c'est préparation corps bi ngeen di def. c'est am na solo trop. am na ñu ma woo fële ci France. Mhm. sax doon ma poser ay questions. ci li aju ci wàllu koor gi. occasion voilà occasion la xam naa ñu ngi suivre ñu ngi ñoom ñëpp ñu ngi déglu. <laughs> xam naa bu ñu duggee ci thème la loolu nga xam ne moom la ñuy laajte incha dëgg la. Mhm. macha allah na moon nañ la. waaw waaw euh, booy pir sañu xoor yow itam bisimilah. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar. da ngaa xëy kontaan. oui dama am benn xaritu xol boo xam ne sama xarit bu yàgg la tey la ñuy soog a wax. <laughs> ñu koy ñaanal baax a baax man naa rek laay wax naa. naa naa naa naa naa naa naa naa naa naa naa naa naa laa yem daal. Ah. xool côté kër Mariam Faye Sall wala côté bi. naa daal cool fa mën a yem. <laughs> naa nañ bañ di yaan di nuyu kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. Ah. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdoul Khadr di ko ñaan yàgg fi lool te wér. Mm-hmm. ci sagal gi mu ñu sagal keroog ci. conférence bi amoon na solo lool. Mm-hmm. di ziar waa kër sëñ Abdou Karim borom Makarimal Axla foofu mm-hmm. kër mami la. di nuyu soxna soosu di soxna. na Fat Bintou Pouy di ko ziar bu baax a baax. di ziar waa Pire Sañoxoor sunu xalifa Serigne Mansour njaboot gaak monsieur le maire ak Baye Bardo Dieng ak moom parent Jibi Diagne mhm. ñu koy ziar bu baax di ziar ñëpp ñi nga xam ñi ngi seetaan mhm. di nuy tuuti maanet ma nga ca Ziguinchor moom it di ko ziar bu baax soxna tuuti mhm. di nuyu nuyu waa France gépp comme ni ko Oustaz tey waxee waa Pantin damaa xam dëkk ya nag Pantin euh, Saint-Michel sur euh, Orge parisien moitié nga nekk parisien mais ah, bien sûr mais demaguloo ci italiano yi non non non Paris rek fi mu nii daal mm. fi ma ma yem. Mm. fa laa yem. Sénégal kon léegi mën nga def yu faatu géwél yi moi je naka. double nationalité. <laughs> Mm-hmm. <laughs> nga yor nii kon contre tuloo ko yor double nationalité. non non non koo contre sax. Mm-hmm. ñi ko contre mooy ñi ko amul. ñi koy contre ñëpp suñu sañoon am nationalité française. wala dañu naan coow ah, soo yoree double nationalité. Ah. ñoom ñëpp ko bëgg ñi ko contre ko bëgg. d'accord mooy woon sa nuyoo suba teen. man ñaar laa yor. d'accord. Mm-hmm. le français bonjour. oui bonjour. ayca mag léegi xujjam yi mm. mu nii ginnaaw France laa am ñaar rek. Mm. ndooy la français kon boog ñu doon nañ daan dooree ti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou yaakaari tey ak ëllëg sama maam yàlla mag neen sot ba de la tëpp ko jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aday di ñaan sunu maam Cheikh Tidiane Almaktoum yàlla yàlla na yàlla yokku taas ñu ci barkeem waaye itam noonu la ñuy ziare Sëriñ Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Bassirou mm. yàlla na yan bi oyof lool lool lool Mbacké ak mbooleem sunu xalif généraux yi mm-hmm. ndax yéen yéenay keroog mbaar mi yéen ko téye ba dara ñaawu ci mm-hmm. waaye noonu la ñuy ñaanalee yaay dëggan mu gisee soppeem ba a jaay yàgg fi loo fi yàgg doyul ñu ngi ziyaar mama Kinushka yaay la ñuy ziyaaree suñu yaay astu jara di ñaan mu mm-hmm. yàgg fi loolu te fi loolu te wér yaay astu yaay mer la ñuy ziyaaree suñu bàjjan Awa Diop ak Issa Diop yaaba tata Fili Camara sama yaay yëpp maam Fifi Camara sama yaay yëpp maa ngi leen di ziyaar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay waaye nag tey nag damay nuyu koo xamante ne nag moom day sama doomu nday di sama xaritu bopp ñu naan ko député bu rafet bi Sira Ndiaye xam nga man xam naa wong bi moom dara weesoogu ci man yow borom mbuur maa ngi lay ziyaarat bu baax a baax tey nag damay euh, sama doom Mamour Fall nekk fële ci Italie kooku sama doom la mais sama sama xarit la maa ngi koy wax ne ko Mamour dundal dundal dundal ba énervé ak képp ku judd ci bisub tay bi nday sàmb fële ci iyaayam yooyu dundal ba énervé Eva ñu ngi lay ziyaarat di la wax ne yéen jóobeen yi moom oustaz. Mm-hmm. namoon naa la bëgg mm-hmm. woor bañ woor dañuy wax bi bisimilah mbokki téléspectateur bi nga xam ne dafa jàkkaarloog mm-hmm. ñun. ñuy ñaan yàlla ci barkeem ak kattanam ak mën mënam. mu may ñu weeru kooru jàmm bu ànd ak dal bu ànd ak salaam bu ànd ak yokkute mhm. macha allah mhm. mhm. waaye lépp ngi ci suñu loxo oustaz leptoo faytoo lu waay def rek ca ngay ca ngay fayeeku naka la ñu koy waxee xaw ma ndax dégg nga wax ji ah lu waay def rek ma ah, ah, ah lu waay du waay def sa bopp maanaam dangay ngay fayeeku rek la nga la nga joxe waaw waaw kañ noonu laa ko bëgg a wax maanaam kenn ku ne la nga joxe rek moom ngay am ah voilà la nga joxe rek moom lañ lay dellu ñàkk toog yow wóoru mm-hmm. waaw bismillah wóorul dafa bokk. xam naa di am mbégte di am comme ni nga ko waxee. koor gi ñëw na. Mhm. di ñaan yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim. Mhm. génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin. incha allah lu ñu ci woor lu ñu ci def ci lu baax. ah yal ko yàlla ful noonu sax la tëddee. amiin soose. weeru ñu wax ne. boo ci defee benn bu baax. dañu koy def 70 yu baax. allah boo ci defee farata. ñu def ko 70 farata soo ci defee naafi la ñu def ko farata. kon weeru koor weer la woo xam ne weeru promotion la ni koy waxee. dëgg ma yaakaar ne te yàlla waxoon na fa man shahida minkum shahra falyasumhu mm. ku yàlla baaxee nga dund ba fekkee koor gi. Mm-hmm. Mm-hmm. te amuloo ci benn ngant nee na na nga woor ndigal la kon or weeru koor farata la. Mm-hmm. Euh, yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi faratal koor bi mu bàyyeekoo Makka dem Médine. ba def fa ñaari at. kon bi mu nekkee Makka woor wàccagul mais bi mu nekkee demee Médine ba def fa ñaari at ñaareelu at ba. ca la yàlla farataal ci yónnent bi koor weeru koor muy farata ndax waa Xuraysin doon nañu woor bésu tamxarit kese yónnent bi daan na ko woor moom itam mais bi yàlla wàccee shahru ramadan mu nekk farata la yónnent bi wax ne tamxarit bu ñëwee kum neex na ko woor kum xari na ko bàyyi waaye lii farata ji ci koor daal moo di shahru ramadan moo di weeru koor nga gis ne koor itam jullit ñi njëkkee ko ndax aaye ba kama kutiba ala lazina min kama kutiba ala dama ko farataal ci yéen mais farataal farataaloon naa ko ci ña leen jiitu woon kon yeneen xeet yi ku ci nekk amoon nga koor xëy na sa façon koor bokkul mais yónnent bi ak jullit ñi ñoom yàlla jox leen weer wi nga xam ne weeru ngëneel la li ci ne ci ci ci ngëneel bul xam ndax lu toll ni kaddu yàlla di alquran yàlla nga ko wàccee ci weeru koor weer yëpp a ngi fi yàlla bàyyi ko tànn weeru koor wàccee ci alquran kon nekk na weer woo xam ne weer wu doy waar mhm. euh, bi fonkoon ko lool lool tabe woon lool lu mu doon def benn bu koor gi ñëwee yonent bi dina ko def fukki yoon daf ci doon daf ci doon fulandi sant jullit yi nag ñu koy woor ñu koy tuddee shahru sabr yi weeru muñ <coughs> te xam nga yàlla di yonent bi day wax ne muñ ka di àjjana la jëm kon daal weer yi ñu bàyyi xel ne weer la woo xam ne bu ñëwee ku profité yéene yéene bu sell or weer wi su koor gi jeexee yonent bi nee na sa bàkkaar jeex na comme keroog bi ngay gane àdduna ku ne xam na ne liir indiwàllowul àdduna oh. maanaam indiwàllowul benn bàkkaar kon ñu rafetal yéene yi buñ ci dugg mm-hmm. rafetal xool yi tuub tuub li ñu mm-hmm. li ñu suñu matadi moo xam tooñ nañ jëg nañ ko wala yëguñu ko ñu tuub ñaan yàlla ne ko yu sew yi ñu def yépp mm-hmm. nag ñu ko sippil ci weeru koor wi ba mu jeex tag loolu yéene lay doon ñuy bu ñuy fas yéene di woor fas yéene di naafila naafila dafa bokk ci koor yàqul koor mais da cee bokk ndax bi yónent bi waxee ni man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaban xufira lahu ma taqaddama min dambihi ku or weeru koor gëm yàlla tax nga def ko ak it sa bopp pour yàlla faxas la faxas say bàkkaar ñu jéggal la sa bàkkaar yu njëkk yi ak ñu mujj yi ndax daf ci teg ne wa man xaama layaalihi mm. ku naafila ñu jéggal la say yu njëkk yi ak yu mujj yi kon lu métti métti ñuy fas yéene di woor te ñuy naafila naafila nag sa kemta kattan loo ci man rek nga di ko def boo jullee ñaari rakk ba. boo jullee eh, gée def def def safa ñaari rakk yaa xam nombre rakk yi ngay def boo defee par ñaar ñaar yaa xam lu sa activité. sooy tëj nga def wetar après nga tëj. booy tëj booy tëj nga def benn rakk wetar mais daal fexeel ba. ngay la ndax la dafa bokk ci koor. njaay yéen ni dégg naa dañuy dañuy woor ba woor boo xam ne duñ ci boole naafila. da ngay naafila koor gi naafila da cee bokk xam nga itam dafa am yoo xam ne dañ ne la yàqu ko comme lu ni xëdd. waaw ñu bari dañ lay wax ne la man du ma xëdd mais xëdd terewul xiif. mais yónnent bi daf ne tasaxaru na ngeen xëdd. Mm-hmm. inna fi saxuri baraka parce que xëdd am na barke. ma yaakaar na itam nag yëf yi duñ ko defee ni ñu ni ñu ko bëggee dañ koy def ni ko yónnent bi doon defee. ku ne xam na ne xëdd terewut a mar. Mm-hmm. xëdd terewut a woor maanaam tere terewul a xiif. Mm-hmm. mais jog nan ndox donte wala nga lekk ñaari tàndarma. loolu mooy indi problème dama ciy tooñ yu bari. xëdd day dafay takk sama biir maanaam ko boo xoole ba fajar nga teg boolu maafe maafe ku ko xëddee sa Malick merci maa la wax ni su ko defee nga naan xëdd xëdd fekk noonu li nga xëddee la ah. xëdd naan meew baax na lekk tàndarma naan ndox mais lekk lekk ceeb bi wala nga lekk maafe bi daf lay indil problème gis nga gis nga gis nga lekk ayu lekkin bi ay voilà <laughs> gis nga islam nu mu civilisé ndeysaan suñu xel dafay dellu ban ci soxna Fatma Fall mi nga eh. xam ni hmm. ni ki démb mi ngi ñuy wax mu ne buñ dee waxtaanee weeru koor nañ hmm. ciy boole diététicien yi hmm. ak ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ci wàllu lekk daal seen xam-xam màcc na ci lool mais li nga wax ni mhm. Mhm. kooku kooku kaala bu am mhm. da ngay bëgg heure yi xëdd nga jël loo xam ne jëm vingt sax doo ko digéré bu boobaa loolu dafay dafay daal di am problème day tàkk ci bëccëg bi ko defee nga naan xëdd bi la dëgg la fekk du xëdd bi mais li nga xëddee la waaw waaw ok nitu France yow la la kile la defee waaw eh, moom euh, teg nañu ci yoon bi li xam ne moom la diine santaane li diina sopp waaye ñun dañuy gis ni dëkk bu nekk ak nañuy woore oustaz te gis weeru koor gi su ñëwee dëkk bi day soppeeku carrément. Mm-hmm. ci xumba xumb dëkk bi day xumb lool. ci yoo xam ne xaw ma ndax diine ji daganal na koom daganulu ko. Hmm. ñu ci bari dañuy lor seen dëkkandoo ñii di ca def ñu mënul borom alal li ñu ci bari bëgg di di di di di ñii dañuy dimbali te nit ki soo koy dimbali da nga koy dimbali ba mu ba ba mu kii mi ngi mel ni. démb démb démb maa ngi koy wax benn kilifa goo xam ne hmm. yàlla da ko may wërsëg. Hmm. man ko soo bëggee dimbali nit ñi ay ay say dëkkandoo ci weeru koor gi xoola identifier ña nga xam ne euh, seen loxo jotu seen ginnaaw nga nga nga dugal fa kër gu ne cent mille francs kër gu ne borom kër gu ne nga jox ko cent mille francs dina ci mën a ndogu ba koor gi jeex waaye su fekkee da ngaa jël boroom kër gu ne nga jox ko 10000 da ci ndogu benn fan mu jeex nit soo ngi koy dimbali da nga koy dimbali mm-hmm. dimbali boo xam ne dina xam ne kii dimbali dina xam ne moom mii dimbali nañ ko waaye su fekkee danga nga bëgg a jël benn un million tasaare ko un million de personnes euh, kon ku nekk am ci junni loolu lool loolu du ndimbal mm-hmm. donc xumb-xumb yi am ci dëkk bi mm-hmm. nga gis ñii di baastali yi di di conférence oustaz ba toog xam ni ñii may conférence dañuy lor nañu waa koñ bi mhm. oustaz boo du oustaz boo du leen wax dara mhm. ndaxte am na ci ñoo xam dañ leen di fay am ñoo xam du leen mhm. ko ne tamit yàq gi dafa bari man ngay ne day ku daan dépensé dix mille francs ci biir koor gi eh, su dul koor su koor jotee day dépensé vingt mille francs par jour maanaam te koor euh, euh, dañu dañu koo jox sakkanal dañu cee jox pour ñu profité mën a mën a mën a sakkanal dara mais yàq googu tamit yooyu yëpp nga xam ne day am ci dëkk bi Sénégal di ko def est-ce que loolu lan la ci diine wax solo Ndoye Bane ci koor gi ak ni ñu koy war a wooree. en tout cas koor ci sunna euh, amul jafe-jafe. amul lu xumb amul lu def nangam. ci sunna mais nag da ngay bàyyi xel ne weeru koor itam comme ni ñu koy waxee. yónneent bi doon na jàmm yàlla. avant weeru koor. su weeru koor daf daan yokk. loolu gis nañ ko ci yónneent bi. bon wax naa leen ne weeru koor dafa am particularité ndax weer yi bari nañ mais yàlla tànn ci alxuraan wàccee ko ci biir weer wi. loolu gis nañ loolu. weeru koor moo am salaatu tarawih jullit la moo ko am mm-hmm. mm-hmm. yónnent bi doon la joxe mais su weeru koor ñëwee daf daan ëpp lu daan joxe moom yónnent bi di joxe di dimbale ñi nga xam ne ay néew doole lañu mm-hmm. loolu ci weeru koor la bokk ama yàq bi bon li ñuy tuddee yàq dama xamul lan moo yàq parce que boo xoolee dépense su weeru koor dina gën a bari maa ngi koy wax tey ci suba maanaam parce que li ngay dogee bokkul ak li ngay ndékkee li ngay dogee mooy gën a su doon ndékki ndékki mën nga xëy naan kafe wala nga xëy dem si yoon nga dëgg mais dogu daf lay laaj soo ko amee mhm. da ngay soxla ya mu àndal merci beaucoup ya ngay àndal yooyu boo ko amee nga def ko def ko ci sa njaboot ci jaamu yàlla la bokk mhm. nekkul yàq parce que nit ki woor nga dogal ko li ci nekk yonent bi daf nii i i i maanaam ittaqu naara wala bi shiqi tamra mhm. fegalal sa bopp safara donte nit ki dafay woor nga dagg benn wàllu tàndar ma jox ko ko loolu jaar sa digganteeg safara bu la woor bekkoon mbiri di lu mun a war ci buntu jàkk yónnent bi hmm. mun ngay toog ba mun nga fa wooree ba koor gi jeex doo jënd ndogu da ngay gis ku lay saraxu pour nga lekkal ko ndogum yow dañuy dañuy mujj échanger ma jënd ndogu jox la ko nga jox ma sa bos parce que ñëppay am ndogu mais li ne ci nga dogal nit ci ci ci aw yiw moo tax dañuy échanger maag yow nga jox ma sa bos ma jox la sa bos hmm. kon ci wàllu itam li ñuy toll conférence yeeg baas mbedd yi ànduñu ci bas mbedd yi àndu leen ci ànduñu mbedd yi parce que bëgg am yàlla ba mujj nag mu indil la beneen problème parce que lot am yàlla bëgg yàlla boo koy am da koy am ci lu sell mhm. mais yàlla mënoo ko am ci lor say dëkkandoo bas ci mbedd yi ànduma ci mbedd moom nit ñi dañoo am ay soxla nañ bàyyi mbedd yi nit ñi dem nit ñi dem dexi seen soxla mais bas ci mbedd bi nit ñi di ñëw ci ruq yi am problème loolu ku ko ci bëgg a def mhm. parce que ci weeru koor ngay jàmmoo yàlla la ngay mën ngay am foo xam ne doo déranger nit wala nga dem ci salle yi wala nga dem grande mosquée wala nga xam foo dem ah. nga def fa sa conférence mais baare mbedd yi daal ah. di ci wut yàlla islam jàngale wut loolu mm-hmm. loolu ku ko ci defit sa jikkoy bopp la mais bul wax ne ci l'islam laa ko jëlee ah. bul wax ne itam ramadan bi moo tax ma def ko mm-hmm. jamais de la mm-hmm. euh, ndoy baan boo demoon tey Arabie Saoudite la fa koor fekkoon gis nga ñun ni ñuy def di takk ay lamp bu 31 décembre jotee guirlande yi yëpp génn yëpp ñuy takk lamp yi ci ci parce que parce que fête gi su weeru koor ñëwee garab yi ci àll bi yëpp ay lamp lañ ciy takk ñoom tout boo ñëwee di nga xam ne ñu ngi ci ramadan macha allah su guddi jotee guddi gi presque yëpp da ngay gis naafila yi di ñu ne ci marché yi kon weeru koor dañu koy màggal ci façon màggalam mais nag dañ koy màggal ci lu dagan mais duñ ko màggal ci dem di lor nit ñeeg yi demee noonu déedéet kon daal li ma bëgg a wax mooy dinañ ci jaamu yàlla dinañ ci dimbali nit ñi su la ko yàlla baaxee sa njaboot woor mhm. ndigam benn tàndarma ngay jox nit mu lekk yàlla jéggal la bakkaar rawatina ma jël ay saucisson ma jël mburu ma jël ceebu yàpp ma defal loolu lan la ma yàlla fay suñu ko amee dañ koy def <laughs> tabarakallah macha allah xam naa oustaz nopp nopp dana dalloo ci balaa maa jox mami <laughs> kàddu bi ne <laughs> kii benn jigéen la boo xam ne ci mm. waxtaan doon doon waxtaan mm. mm-hmm. moom ci xuloog jëkkëram la dëkk mm-hmm. ma ne ko xanaa ku ku xuloo atum la mu weeru koor nga mën a jël congé mm-hmm. daal di def juboo ni ko xale yi di waxee loolu diñ ci wax ndax weeru koor itam kër yi da ngay gis ñoo xam ne danoo bokk ndogu te jubóowuñu yéen ne ngeen yéen a ngi wut yàlla ah, te yéen a ngi teg ndogu di ndogu xam ngeen ku ci ne lam koy defal bu weesee euh, sunu borom morom bëgg na ci moom mhm. yokkute mhm. Mhm. waaye jubóowu leen te yéen bokk benn ndab ndeysaan di kii eh, kooku bëgg naa nga wax ci bu baax effectivement ndax kër yi dañoo xumb parce que weeru kër yi weeru <laughs> njéggalante la mm-hmm. weeru balewante la ah, kay euh, parce que itam nag bu fekkee ne yonent bi def na weeru koor su ñëwee dañuy ubbi juróom-ñetti buntu àjjana dañ koy ubbi mm-hmm. àjjana safara juróom-ñaari buntu la am dañu koy tëj dañuy jëng seytaane mm-hmm. mu nekk weeru njëggal weer woo xam ne daf nii fukki fan yu njëkk yi yërmande la fukki fan yi ci digg bi euh, maanaam euh, maanaam maxfira yële yërmande la yii njëggal la yële ci la ñuy gore nit ñëpp ci safara kon mu nekk weer woo xam ne weeru weeru balewante ak la weeru njëg parce que boo wooree sa xol dafa war a sell ah, mhm. sa xol sell li ñuy tuddee daxi na yëpp nga génnee ko ci mhm. parce que nag bañante beeg yooyu moom man nay war nay war nay mun a ñàkk mhm. ba tax ñu jé mag ngi dañuy def bu weeru fi ku nekk nga ne ko baal ma àq baal ma àq baal naa la àq parce que diggante daaw ba ren mën naa am tooñ naa la ah. mais jéggal ma baal ma àq parce que ñu ngi dugg ci weeru koor mm-hmm. te weeru koor weeru jéggalante la kenn ku nekk balu sa àq ñu dugg ci nag mm-hmm. continuer jàmm ak salaam kenn ku ne yéene sa moroom jàmm mm-hmm. soo ko mën mënee dimbale nga dimbale ko parce que bëgg di julli te yow yoreel nit en mais googu julli yàlla du ko nangu dëkk ci kër kër yi c'est pas bon wala ngay wala ngay julli di tooñ ñi di julli di lor nit ñi. di julli di di di maanaam di soxoree nit ñi. yow yi sa julli gi yàlla nangu ko parce que nag julli dafa war raxas xol. sa xol dafa war a leer mais bu sa julli bu fekkee julli gi ngay jullee raxasut sa sa sa xol mm-hmm. yaa ngi gën a soxor mm-hmm. yaa ngi gën a bon mm-hmm. yaa ngi gën a final nit yi kooku julli du la jëriñ dara kon weeru koor ak julli ñoo ànd mais yu ci bu lu ci mënta nag dafa war a raxas xolu jullit bi vraiment nga yéene nit ñi jàmm yàlla mën la yaa ko waxoon ci commencement bi mm. li nga joxe rek lañ lay delloo te li nga jox nit ñi la la yàlla lay delloo te nit ñi yàllaa yonent bi daf nii al alxalqu kulluhum ayalullahi mu nit ñi ñëpp njabootu yàlla lañu ka yàlla gën a bëgg mooy ki gën a dimbale njabootam gi ka yàlla gën a bëgg mooy ki gën a yërëm njabootam gi kon nit ñi yàlla leen moom dangay am xol xol xol bu leer ak yéene ak yërmande ci jaam ñi loolu mooy loolu loolu daal vraiment mooy jikkoy jullit weeru koor it loolu la ñëw pour def ko ci nit ñu góorgóorlu ci vraiment euh, yaa soxna si te euh, li nga wax dafay dëgg ba nga xam ni ñun mm-hmm. gisuñu yàlla de mm-hmm. waaye xam nañ ne doomu aadama bi yàllaa ko sax yàllaa ko sàkk boo bëggee ut yàlla da nga koy ut ci doomu aadama bi ci nit ñi nga koy wut dégg naa ajaali nga koor gi dana ñëw par mm-hmm. nga xam non xam nga ñun xam nga ñun gone njaaye ni waaw <laughs> xam nga ñun gone njaaye ni amuñu problème te bu ko waxee daf may may du ma la bàyyi nga ree du ma la bàyyi nga ree jëlaat sa force ba pare xam nga ñun gonee njaay ni amuñu problème koor gi ñun fi toll nii wàcc nañ ba pare mhm. ñun jaamu yàlla ak potu ndox rek doy nañu sër ma jàkkaarloog oustaz macha mhm, mhm. ja comme jamono kër maam bàcc fall ndeysaan xam nga day indi wax ju am solo mooy que bëgg yàlla jàmmal la too doo jàmmal jaami yàlla ah, bëgg yàlla may la te doo may jaami yàlla yi bëgg yàlla suturaal la te doo suturaal jaami yàlla yi dafa dem ba Eva ngi wax lu am solo mooy que nga dëkk ak nit ci benn kër ngeen dem ba weeru koor ñëw ay waay waay waay xanaa ko añ añi onze mois mm-hmm. bii nag xanaa bi ngay jël congé nag nga war a mën a sellal mm-hmm. te fi ñuy xamee ne hasard amul benn yoon mm-hmm. te yàlla du juum ci daraam mooy que dañu nekk ci weeru stage ci ñu war a dem màkk même ñi demul màgg sax war nañoo commencé ñun di stage mooy que fan. Mhm. dañ la ubbil buntu jéggalante. Mhm. nga war a taxaw di nit ki jéggal ma. Mhm. ma gis ci beneen jàngat mooy que dina dindi rëy ci nit ki. mooy que bu fekkonte ne mënoo ne jéggal ma. bii dina la may occasion nga dem ne nit ki jéggal ma. mais nag mu nekk lu nekk ci sa biir xol. mais malheureusement ñun Sénégal dañoo mën a ngistal ak ñi ma ko mën a wax. dëgg la dëgg la jéggal ma jéggal ma ji ci catu làmmiñ bi la yem. weeru koor gi ñëw na naa ko ne rek jéggal ma ñu delluwaat ca. ngeen delluwaat ci ci lan ngeen di delluwaat ci mhm. añ añ mhm. ci musiba ci naqaralante mhm. nga gis ñu dëkk ci benn kër nga luyee ci kaw kii luyee ci suuf bëccëg jot kee ngi dallu ngay dóor say bool rën-rën ju mel ne ay dëbb bu mel ne ay mhm. yaw yaa ngi tëdd ci biir di dallu bàyyi say doom ñuy dàq ci escalier yi mhm. bàyyi say doom ñuy dàq ci biir kër gi di déranger keneen ki nga dëkkal mhm. nga ne yow yaa ngi ci weeru koor yow yaa ngi dallu say doom nañ génn ci mbedd mi weeru koor xale yi nga jox leen ñu lekk ba suur nga dàq leen ñu dem ci mbedd mi ñi ngi football di jël seen bal di ko dóor ci fenêtre jàmbur ñu ngi toj ay vitre jàmbur ñi ngi yàq oto jàmbur te yow ñooñu yow ak ñoom yéen dëkk ci benn koñ bi ma jàpp ne loolu rafetal ci foofu kon nañu rafetal ci xam naa ne bi ma dégloo mami ba mu daanal dafa may jox euh, envie ak euh, complicité wu Mia incha allah ñu dem ci ci comportement mhm. maanaam civisme mhm. bu nu bu nu wooree ba noppi ñu ñëw ci émission yu ni mel mami ma may la nga jël mhm. ki ci ligne bi dalal ka salaamaaleykum wa rahmatullah ata mami mais yow nanga nga dee maa fii. nooy waajalee koor gi. <laughs> waaw koor ñu ngi waajal suuf rek xanaa yàlla jéggal ni. amiin amiin yàlla na yàlla jéggal. waaw waaw bu ma bëggoon participer ci émission bi. yaay borom yow rek la ñuy déglu. lay ziar di ziar sa taay baax. ñu ngi lay delloo ziar bu wér. maa ngi béy ñëpp sant Ndoye Bane. bon di kontaan ci émission bi ah. parce que c'est la première fois sax ma woote télé. Mhm. parce mami moom dama koy béy à chaque fois. wuyu ma man fii laa la def. alors <laughs> ah, foog na. ndeysaan koor gi moom ah xanaa ñu rek. Mhm. xam naa koor gi moom. puisque ñun on est des jeunes. te mhm. boo dee xool sax yàlla ndaw la gën a soxla. wallaay. donc liñ ci war a def bari na. am na mhm. ñoo xamante ne bu koor gi jubtee dañuy dañuy dañuy tuub. Mhm. maanaam dañu nekk ci li yàlla santaane duñ tàdd waxtu juróom mais bu koor gi passé ñu ngi nekk ci leneen. dama yaakaar ne jaamu yàlla chaque jour la. warul am congé. loolu rek laa amoon waaw wuy ma. waaw ci waxal nag sa moroomu xale yi nee leen. Ah. bu ñuy naafila ji ñu jiital kii li si yeeg yooyu noonu dem ba ca yoon ba dindi mal fa bee kii bi continuer feneen. <laughs> nañu naafila ji rek dëpp delluwaat ca kër ga xam ne weer yàggul. waaw uh-huh. weer yàggul weer yàggul weer yàggul nañ ko sellal rek benn yoon. mais xam nga sama genre gi. Oh, démb ma mi jox ko euh, carton saabu. mi àndul léegi chaise laa koy tegal. dañuy tëj hmm. saison. Uh-huh. nee na d' accord na loolu yaakaar naa sax naa tëj saison boo koy def na nga war a tuub. Uh-huh. jàpp julli ci ba set ñaan yàlla mu jéggal la. mais ay tey suba la koor gi dañoo war a dem plage. ay tëj saison loolu su ma naa ngi quoi du dafay <coughs> voilà ma. yow jox nañ la ci carton saabu nga jox ko yaaboo yi wala nga fóoti kii yi mël fa yeeg yooyu ñu war a kiiwee. <laughs> na la ko tataami yaa jox. kontaan nañu lool ci yow. yéen ñaar tam tey dangeen ma war a neexal ndoy baan xam na ne su ngeen ma neexalulee du baax. Ah. voilà yëpp non wuy ma <laughs> wuy ma xam nga neexal xam nga neexal la weesul xam nga xale yi nee nañu kii bi virage non non mais teewul man dama lay neexal xam nga man damay xëy déet man nag neexal ma la pour yow président président daf maa di ci yéen ah. nga ne xaritu xol xaritu xol rek xam nga xam nga man xëyuma ma man di la neexal xam nga pour yow man imaam imaam lay neex neel xaritu xol ah xarit xaritu xol waaw très bien euh, balaa balaa dara balaa dara xam ngeen ne émission bi itam dañ ci ànd wax mhm. dëgg yàlla ak euh, savonnerie Fakri mhm. euh, ànd ceeg waa savon saf savon saf daal moo ñu saf te mi yàlla bëgg mu dëggal li may wax wala mhm. saabu saf jërëjëf euh, savon saf bu leen ko fàttee jëfandikoo savon la bu baax boo xam ni wax dëgg yàlla c'est antimicrobien mm-hmm. kon boog bu ko defee mu ngi nekk ci emballage emballage boo xam ne boo ko bëggee denc da nga koy denc waaye am na bu nekkul ci emballage mën nga koo jënd léegi ci boutique bi ñëw jëfandikoo ko léegi waaye Evatra li ko ci gën a neex mooy savon saf dafa parfumé mm-hmm. parfum bu amul benn ngaañ oustaz mm-hmm. man daal maa ngi nuyu soxna Awa Pilo fële ca ca ca Monaco xam ne mhm. euh, nee na euh, ñu wax ci koor gi ak ñi ñi mën a tëfli mhm. effectivement réalité la dafa mhm. am woor ba noppi di tëfli tëfli ba keneen ki nga xam ne yaa ngi nekk ak moom yaa ngi koy génne dugg ci oto itam yor sa socc di socc di brousse ci kaw nit ñi boobu di wane ne damaa woor ah d'accord xam nga an-nazafatu min al iman eh? euh, gëm yàlla mm. set ci gëm yàlla la bokk kon koor tekkiwul de boo wooree da nga war a salté xam nga dama koy wax toujours bu njëkk bi Dakar Ndakaaru di sedd sed bu métti nga xam ne soo wooree sa tuñ ji dafay wow gaa yi ñu ne boo boo wooree doo doo diwu mhm. boo wooree doo lal mentalaatu nga gis koo xam ne tuñ mi dafay xar mu ne ci biir nit ñi ci turu damaa woor kon yow déggoo woor woor da ngay sangoo ba set da ngay diwu boo amee parfum nga laal ko dama lay waxal xet gu neex la islam encouragé ci xet gu naqar yi. Mhm. ah wax ji oh, del soccu ba set. de. del del soccu ba set. soccu sunna la. bu fekkee ne soo yoree brosse à boo wooree man nay indi problème mais soo xëddee nga brosse brosse à dents. ba set wecc nga toilettu ni nga doon toilettoo avant corps parce que ne ci jàkka yi di julli da ngay laal parfum da ngay set weeru koor weeru set la mais mënuma gëm ne yow daal da ngay woor da nga war a salté da nga war a bàyyandeku ku la gis kenn xamul luy niru loolu du woor. kon du woor di tafli ci jàkka yi. di woor di tufli foo tolli pàcc pàcc loolu itam nekkul lu yiw xëy na xëy na comme que tufli nit du doon lu nit ki di xëccal boppam ah ndoy ba euh, euh, euh, oustaz lay bàyyi sax mhm. waaw mhm. man daf ma neex ndax dafa bokk rek mhm. dafa il est ci ligne bi benn yoon allo allo dalal ko bàyyi mu dalal allo allo salaamaaleykum allo allo waaw maaleykum wa rahmatullah waaw cheikh ah? ñu ngi delloo ziar alhamdulilah allo oustaz laa soxla woon may wax ak yow sax waaw maa ngi ci France di la xool waaye nag euh, sa numéro daal laa soxloon dama la yittewoo. ndeysaan defe naa ni gars yi mën nañ la ko jox foofu de. waaw téye ligne bi rek. ca ca régime waxal mi yaa gars yi ci biir yor nañ sama numéro ñu jox la ko incha allah ah. bu soobee yàlla waaw kay xam nga. defe naa loolu la weeru koor mhm. tekkiwul de soo wooree da nga war a jaxasoo danga war a salte mhm. koor du dara demal nga liggéey demal nga defi say activité diggante xëdd ak jant bi soo kenn du fi deyee kenn du fi yor yi et puis am na ñoo xam ni imam diggante xëdd ak jant bu kenn du fi dee laa jaru ko mun na tàng mun na def nang parce que imaginel euh, soo wooree boo dogee ba pare waaw jàmm ji ngay am mm-hmm. weeru koor di la jox di la jox set sa mm-hmm. yaram di wér li nga boo demee ci rajo ba ñu bari dama leen di tooñ heure bii bu ñu añee pour yëg quatrième problème la mm-hmm. mais su koor jotee da ngay gis gaañe di daw ci escalier yi ma leen di tooñ naan leen gis ngeen koor gi activité bi ngeen am kon weeru koor weeru baax la boo wooree da ngay firi. Ah. li nga doon def ngay def. Mm. di set di di di ak i temps ñu bari koor gi bu takk takkusaan jotee tàngu xol la leen war a indi. Mm. bala nga koy xam nga circulation bi ba ñëpp wàcc. Mm-hmm. nit ñi dañuy mer. Mm-hmm. seen xol yi dafay tàng. mais jaaduwul. Mm. jaaduwul da ngay gis circulation xol li dëkk bi embouteillage bi am parce que ñëppay wàccandoo. ñëpp mer ko kenn du taxaw police mënu ci dara ma yaakaar ne weeru koor itam bu ñu wooree nañ di jéggalante di muñlante di dallante dafa bokk ci koor koor dafa war a ubbi xol borom am yërmande parce que bokk na ci philosophe bu koor nga xiif bokk na ci boo xiifee ëllëg su la nit ne la dama xiif di nga comprendre li mu la wax soo maree xam li ci mar su la nit ne damaa bëgg ndox di nga xam li nga xam ne moom la la wax kon dugal toj xolu jàmbur toj xolu nit def ci yërmande loolu mooy philosophe weeru koor mais woor ba pare vraiment soxor naqari deret di xuloo di mbedd bi di saaga loolu tam kenn kenn du woore noonu weeru ixsaan la weeru salaam la weeru sakin la voilà merci mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek mm-hmm. euh, Sénégal dañ ko dul def ni ñu ko sunu diine waxee mm-hmm. ñu ci bari seen sëy dañ ciy tas démb ñoo ngi ci weeru koor waaw yi ah, mais mooy liñ doon waxtaane fii lu tax ñu ci bari waaw suukaru koor yeeg euh, joxe yàkkaloo maak euh, indiloo suukaru koor ak sa jëkkër toog di la seetaan say say say njëkkeeg say goro di la di la dëggaate di la mm-hmm. napaaje mm-hmm. nga bañ bañ koo joxe sa jëkkër ànd ak yaayam ànd ak ay sëram ba sa say tas ci comme xulo yi da ngay gis ni xulo bi ma kii da koo cof sax euh, Eva da koo cof sax da gis jëkkër ak jabar yoo xam ne du du du jubóowuñu. Mhm. ba weeru koor duñ jubóo ba gi duñ jubóo. tey jii yàlla nañu yàlla musal ci sa jabar nga xuloo moom weeru koor doo ndogu ndogu lu neex. Mhm. ah doo ndog lu ko dàq amul ndogu ndogu ndogu neex de. dog ci ndakaaru ngay ndogu ndogu lu ko gën a neex amul. Mhm. Eh, eh, moo xam boo woo rek boo wóorul. soo woo rek soo wóorul. voilà ndogu ci boppam moo neex nga nekk borom kër boro sa soxna war laa taajal ndogu ngeen xulo pan ñaari at a ngeen yéen a xulo loolu tamit euh, rafetul doo mën a invité kenn mm-hmm. koo invité ñi ci gan yi dañu gan yi xam nañ soo xoolee dana xam ne sa jabar yi ñaar neexoowu leen donc doo invité kenn kenn du la invité te ku la invité sax nga dem mooy xaaraankat yi ah. xanaa xanaa loolu jéem a ah, dañoo xuloog seen jabar am na ñoo xuloog seen jabar yi am na ñoo xam ne xulowuñu ak seen jabar yi dañoo joxe dépense ba pare ni fa njukk weeru koor gi ba mu jeex du ndogoo seen kër dañuy wër rek ci kër gaa yi di di dogu rek dem ci kër kilifa yi di ndogu jaxase eh, soo ay dem ay ci aawa ba ni ko yaa ko yor suñu ndogul ca kër aawa eh, ñaareel ba dara neexu ci woon xam nga loolu xaaraankat yi ñoo ñooy jaxase sa kër te doo ko yëg. Mm. man di ka ca bunt bi daf ma ko ah, ah, doon fëgg dafa dafa ñu rëcc ne dama bëggoon nga jël ko waaye du ñàkk miyaandu dugalal nu keneen mm-hmm. góor mm-hmm. Mm-hmm. da ngay sagal jëlaatal sa soxna léegi tegal ko foofu jël kii dellu si waat ci yow allo allo allo. allo wa wàññil sa télé nga jokkoog ndoy baan. Mhm. allo. Ah. dégg nga ah, kooku itam dem góor da ngay sagal sa soxna. Mhm. Ah, te daa dégg moom moo daan wax ne su ba su dawee rek dajeeg man ville. mu waaye yow ndoy baan heure añ fooy ne man ko maa ngi ci dëkk bi daw de mun ma del añi sa kër. wax nga ko fi ba nit suy joxee dépense su añ jotee dafa war a dem añi. Mhm. xam nga. Mhm. su ndogu jotee nga dem sa kër ndogu ji ak sa njaboot. Mhm. waaye tey tey yaa nga fee suba yaa nga fële ba mhm. koor gi jeex. doo ndogu sa kër. mais loolu borom kër du ko def du ko def loolu baaxul te du wër di tas kër jàmbur yi rek loolu c'est pas bien loolu baaxul xam nga ba ñu ñu sax léeg nga dem kër yi ndogu ji fa benn yoon dëgg la ci ku weer du dara mais tamit soo invité yi na ñëw waaye yow toujours yaa ngi kër yi rek xam nga li ngay wax ci ay suukaru koor waaw ne dafay tas kër yi suukaru koor du farata du sunna du farata du sunna waaw ku ko joxewul dee li am solo mooy dimbalante ci koor oh. dimbalante lañ dimbalante ci koor mais naa jox sa wujju wala sa nangam ay sukaru koor du farata du sunna man nga ko dimbale weeru koor daal weeru dimbalante la koo tane dimbali naa la yónneent bi ko tabe woon la mais su koor jotaan la daan gën a tabe yónneent bi tekkiwul da daan jox Aboubacrine parce que mooy papa Aïcha wala day jox ay déedéet ñi ñàkk te mënuñu ko ñun la yónneent bi daan dimbali bu sa bu fekkee sa gorot mënut mais nga la nga koy jox da doon dimbal mais bu mu doon aada yàlla la ñuy jaamu mais bu ñu aada koo xam ne yaa ko tane muy sa goro wala muy sa nangam nu munta tudd soo ko tanee nga am suukar demal nga jox ko jublu ci ndimbal sa wax jii nag dafa leer jublu ci ndimbal hmm? maanaam jàppal ne ka ngay dem seeti bu dee goro la ci yow hmm. moo xam moo jël sa doom wala sa doom ak a jël hmm. loo ca def da nga koo dem dimbali ndimbal nga koy tuddee la soppe la merci boo mënee yaa ko ëppale dimbale ko nga dimbali ko waaye bu ñu poñe kenn ndax mukk naan suukar la ci koor gi am nga ko nga ni sama njëkke bii daal at bi jeex weeru koor dikk la lu rafet islam dina tranga la bañul tranga mais li muy bañ mooy mu doon loo xam ne dañ naan boo ko deful ñu xas la waaw bu dee tranga dong l'islam moo xam tranga islam mooy dina tranga noo ko mën a tuddee ak foo ko mën a def rek islam ànd na ca waaye nag boo ko deful ñu xas la islam xamul loolu amul fenn ajali ngeen jëlal téléphone jëlal salaamaaleykum wa rahmatullah mhm, mhm. allo waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ bu baax bi ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay waaw ñu ngi ziar bu wér ñu ngi lay delloo ziar bu wér ak di la jox sa wàccuwaay kontaan ci waxtaan wax dëgg waxtaan am na solo lool. jërëjëf. waaw ñu ngi leen teew lu baax. jërëjëf. ñu ngi leen bu baax di nuyu koy baal. di nekk ci plateau bi bu baax a baax. ñu ngi lay delloo siyaar. wax dëgg yàlla mu kontaan nañu bu baax baax baax si waxtaan yi am solo yi. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi tudd solo fii waaw da ngeen ziar bu baax yàlla dañuy teel waxtaan yi bu yëpp. incha allah da na nu ay weeru koor yi amiin amiin yaa ngi woon fu am solo mooy que ki nga tane nga war a dem dimbali ji. Mhm. mais Oustaz léegi bu ñu demee ba suukaru koor ki nga tane doo ko dimbali de. Mhm. yow moo la tane. Mhm. ndax moom la mu yor yow yoroo ko mhm. mais yow yaay daw di lebi ay bor mhm. yow yaay daw di lijjanti ji yow yaay daw di bokk ci natt yow yaay daw di defi prêt pour mhm. mën a dem jox ko suukaru koor wax naa Eva fi ne ko léegi suukaru koor egg na ba ci vingt et un carats ah, mami bàyyi boobu ah man boo ko waxee rek ma ma daadee jaax jaaru or yaa ngay dàqee ñun ñu dëkk Bawol ak Louga ak feneen feneen xam nañ ci dara mm, mm. or yi léegi mooy yóbbu suukaru koor ah nga teg ci jasneer waaw teg ci brodé waaw pañe bi soog a ñëw ak leneen ak leneen la nga cay teg soo a jox dinañ dem ba cuuraay potu gowe wala duñu a gowe sax euh, sax xataa lépp nga yóbbu di nga yóbbu si jaada di yóbbu leneen ak leneen léegi am na dëkk yoo xam ne boo yebbi da nga yóbbu congélateur ak chambre à coucher hmm. mbir maa ngi gën di dem di gën a metti hmm. Hmm. te luñ koy gën di puus muy gën di sori nga dem ba nga xamante ne ni da nga naan bu ma ko deful sama sëy tas ci ma jàpp ne jaamu yàlla xanaa ci sëy ci la bokk kon boo demee ba mu war a tas sa sëy mais oustaz ñi nga xamante ne dañ naan damay dem di dàqi koor dàqi gi nag dinañ dem géej léeg-léeg bu ñu demee mën ko tëyal boppam ñi nga xamante ne dañuy toog ci buntu kër bu leen Eva rombee ñu ne kee mooy madame imam xool ko la mu sol Mami Diop romb leen ñu ne wengare bu mag baa nga nee di dem mhm. Ndoye Bane romb leen ñu ne xool ko biiram bi day toog ci télé bi di wax rek mhm. suba ba ngoon jot dañuy jëw ne dañuy dàq ko mhm. ak ñi nga xam ne dañuy lidoo dem banaan lido bi tegal mil ma teg mil boo ko gañee jël mais carte xaalis dañuy lido est dagal na yonent bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharabahu macha allah ñu taxaw foofu répondre ci ligne bi dellu si jël ko jël ko soo paree mbokk mi allo mhm. allo naam sant yàlla bu baax man daal euh, ko seetlu mu ne euh, yaakaar waaw loolu ñu daan naan raison bi naan day tas bi bu njëkk ba de man lu ma fekkee woon mag yi ñoo daan nekk jël saaku suuf wala suuf daal dafa demal nga doon joxal ma ci sa yaay. waaw koy jox. mais dama bi ma ñëwee Dakar fii laa gis jigéen ñi jël sukkur koor di ko yóbbu te bu njëkk ba ci la may jabar kooku nga daan pour teral nga ko nga jox sa doom nga ne ko. boo demee nga jox sa yaay wala sa papa mu dimbali ci boppam. Mhm. est-ce que. mais suñu gouvernement lii lañ bi man de sama kër je trois fois. képp ko fa boobu ñu bëgg. Mhm. te mhm. man maay tas fii. parce que fekk na sama papa di ko nii sama papa moo daan jotee ay jabaram ne dem nga dem jox ko sa papa dimbali euh, jël alal nekk sama yaay dama nga dem jox ko sama yaay kooku woon nit te loolu man foofu def sama sëriñ. Hmm. bu yeboo jabar bi woo leen ne tas nañ sama sëy parce que dama def suukar loolu daal laa amul bi ñu sant daal. macha allah suukar si la macha allah. bu war a war a jox ko hmm. mais pas jigéen bi parce que yaa jox jigéen bi. Hmm. bala nga ko jox jigéen bi jël seen nga jox ko nga ko dama nga def jox ko tamit. man de sama loolu laa gis loolu la ma yare. man nag ren du ko nag foofu laa yor. Eh, yaakaar naa man même ay tànk yu njëkk affaire <laughs> yëpp ay tànk njëkkeeg fan la rey kii ah, ah, am na ci am nag euh, mm-hmm. daf ci am ci kilifa yi ñoo xam ne lu ñu jàpp jàpp jàpp jàpp seen xel yépp a ngi ci biir kër gi ak fonctionnement wu biir kër gi mm-hmm. dëgg la ña ngay laaj doom lan nga def ña ngay laaj mm-hmm. jabar lan nga def na ña ngay laaj goro noo doxaleeg soxna si soxna si nu mu do doxaleeg yow macha allah da nga soo deful da ngay jékki-jékki benn affaire bi explosé fekk am na luy màgg ci biir kër gi te yëgoo ah. benn bomb buy màgg ci biir kër gi yow borom kër yëgoo da ngay jékki-jékki mu ni bum yow mi nga xam ne. du la bàyyi du la bàyyi waxoo non lépp ci sa kaw lay këpp. Mm-hmm. te yow waxoo defoo defoo dara yaa ngi ci jéem a def pour pour ñoom ñëpp ñu nekk ci jàmm. ndekete am na benn bomb buy màgg ci biir kër gi. Mm-hmm. te yëgoo ko te ñoom mm-hmm. jigéen ñi la. sa yaay la. wala sa jabar. wala say doom ñu la koy nëbb wala benn Eva Tra bu nekk ci biir kër gi di dox dox joo xam ne mm, mm. ñépp ngay waat ne kilifa gi yëg na ko mm. booba la Eva Tra di dox kilifa gi yëgu ko sant ko ko du tey du suba du gannaaw suba te gis moo ne ci lu ko gis nga gis nga da ngay gis ni sunu mbokk moodu moodu yi ak ñu wala ñi nga xam dañoo takk ay seet yu bees ak ñu ngeen da ngay jekki-jekki sa góor a ñëw taxaw ni la eh, war ngaa jox mami war ngaa jox Eva war ngaa jox xoola su fekkoon ñoom rek ngay jox sa yaayu jëkkër wala sa njëkkee benn njëkkee noonu du garaaw de dañ lay jox list da bari na ci Modou Modou dañ lay ah sa papa diwa ngi fi de war nga koo jox war nga koo jox sukkur koor ak sa mooy woote mooy wax loolu yaayu Modou Modou bi ah. wala jabaram wala papaam ñi ne Sénégal ñooy woo Moodu Moodu ba naan ko war ngaa jox diw su koor koor war ngaa jox diw war ngaa jox mm. war ngaa diw mm. ah, man de wax dëgg yàlla maa waxati ci sama tukki bi musuma tukki de waaye Moodu Moodu yi ku ñu yónnee dix mille julli julli ñaari rakka ñaanal leen ndeysaan wallaay ndeysaan ku ñu yónnee dix mille na nga julli ñaari rakka yoon ñaanal leen parce que mm. xamoo nu def ba am dix jël ki ci ligne bi delloowaat oustaz kat incha allah incha allah euh, euh, oustaz ne ko bisimila benn euh, allo salaamaaleykum Oustaz na ngeen def. ñu ngi fi jàmbare ci alhamdulilah. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax. ñu ngi dellu ziar. ñu ngi rafetlu émission bi trop macha allah. jërëjëf macha allah mhm, mhm. neex na yeete na macha allah. Mhm. soxna Eva man danga maa neex ndax ku yiw nga. sant yàlla jërëjëf mami nag moom daf may dajji ndax day dàq stress. <laughs> ñun ñoo ci xam dara mani eh, ñoo ci xam dara. mënuma koo muñ. bala ngeen a rek da ngeen a cotiser. ëpp naa def. <laughs> ëpp naa def mais ñi ngi rafetlu émission bi bu baax. Mm-hmm. émission bi lii ngeen di waxtaane nag lu ngeen waxtaane rek xew na ci kër yi. Mm-hmm. lu ngeen waxtaane rek xew na ci kër yi. ndeysaan. Uh-huh. Mm-hmm. mais nag yéen a ngi yeete wax dëgg yàlla macha allah yàlla leen yàlla jàppale. mais nag maa ngi leen di xamal ni kër yi li muy garaaw garaw kër kilifa diine yi tamit. ndax këru wàccuwaay la. kër ñépp la. ña ca bokk. Mhm. du ñu sonal kenn mais surga yee ca biir. ñooy indi problème ci biir kër yi. Mhm. parce que ñooy seet ñu ñuy gënale. Mhm. ku ñuy yëkkati ku ñuy wàcce ba dootoo xamante sax fooy teg sa tànk. ngeen waxtaan ci loolu tamit. jërëjëf. ñu ngi leen di sant di leen bëgg nañ bëkk néeg de bukki néeg de la ñuy bañ. waaw mu ngi noonu nag. mu ngi noonu jërë ah, ngeen jëf. jërëjëf Adja jërëjëf merci beaucoup. wax na solo oustaz duñ la sañ a duñ la sañ a dagg benn yoon mhm. waaye boo bokkee nit te yàlla def ko kilifa diine def mhm. ko kilifa aada def ko ni mu ko def boo ko bëggee moom ci boppam danga koy jàppale mm-hmm. ni nga koy jàppale mooy lépp la nga xam ne moom loxo mënu caa àgg wala xelam demu ca mm-hmm. nga gaawantu fattal ko ko balaa ñu naan mm-hmm. moom la wala balaa ñu naan yëg na ko dafa réagirul ñoom mënunoo li yëg lépp mënunoo xam lépp danoo sonn bismillah maanaam kilifa kilifa moom métti mais avant ñu ci ñëw ñu ñëw ci hadis bi ma jàngoon léegi mangoog mangoog ci ni ko mami doon waxee euh, dem ci place yi wala mm. wax ku ne wax xam nga woor bàyyi lekk ak naan moo ci gën a simple ñun dañ yaakaar ne woor mooy bàyyi lekk ak naan kese. mais ni sa ni nga amee ni nga téye sa gémmiñ téye téye sa biir. ci lekk ak naan noonu nga war a téye sa làmmiñ. wallaay dëgg la. noonu nga war a téye sa bët. Ah, noonu nga war a téye say nopp. ak say tànk ak say loxo. doomu aadama boo wooree sa cër yëpp ñoo war a woor. macha allah. maanaam woor ba pare ne ci dëri nit ñi yónnent bi nee na soo yeboo nga dem toggi añ nga lekk parce que sa xiif xiif ak mar kese nga ci am. wax na ko sa saimin laysa lahu min sawmihi ila al juu wal atash bari lu ko woor kooram gi xiif ak mar kese la ci am yal nañ ci yàlla musal yonent bi ne ku mënta bàyyi waxu mbóosóor waxu mbóosóor moom waxu mbóosóor la mhm. wala ngay jëf jëfu mbóosóor mooy li nga wax jëf ji mooy di mariage di tegaale carte mhm. yonent bi nee na sa koor gi xiif ak mar kese nga ci am mhm. boo yeboo nga dem lekk nga dem ndékki nga añ parce que nag fulla ji tax nga bàyyi sa biir bi lekku ma naanu ma fulla jooju moom laa war a gëm ba tax na kaddu yu sew wala wax yu sew wala fu ñu koy waxee man ci sama bopp aw ma jot googu. macha allah naa sama kurus su ma ko mënee ma ubbi alxuraan di ko jàng. soo ko mënul ngay déglu alxuraan wala nga téye wala nga dem toog jàpp sa jàmbur. ngay waxtaan waxtaanu yiw waaye daal woor ne ci deru nit ñi. di xool lu bon sa bët day woor. bët da ko war a woor soo tourné comme que nag bon gëmma di dox kenn mënu ko Sénégal. waaye nga fexe ba nga fexe ba boo gisee lu la nar indi fitna mais nga gëstoo dem sa yoon te xam ne amoo jot te jigéen ñi final góor ñi it ci koor gi nañ ragal yàlla. ñu bàyyi ko nañ di yiw nañ bàyyi colin yu bon yi ci weeru koor yi. loolu loolu maanaam yooyu baaxul yooyu baaxul. am na ku newu ci xam naa Ndoye Bane dina ko commentaire su paree. <laughs> ah non kon buux nga carte bi Ndoye Bane. salaamaaleykum Ndoye Bane jël ko ba boo noppee àggal yi. tey baas yu baax de allo. <laughs> nee na léeg nga gis tey baas yu baax. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, ñu ngi leen ngi leen di ziar bu baax. Mhm. di leen ñaanal kontaan ci yéen rek. alhamdulilah jërëjëf. Euh, kontaan ci tey soose bu wër. ndeysaan woote. walay aha ndeysaan. foog ma yeewoo damay jàkkaarloo ak émission bi dama koy seet dama dama ci am kontaan. sant mhm. yàlla parce que dañ ciy jëlee lu bëri. Mhm. ngi leen di moo tax kontaan ci émission bi. ci wax moo tax di bëgg a participer ci émission bi. Mhm. waaw ñu ngi leen di ziar yëpp. jërëjëf jërëjëf. waaw maman nekk yëpp ngi leen di ziar. jërëjëf merci beaucoup ak sama papa bu baax yal nañ ko teewee ay déwéni déwéni déwén amin amin te fàttali mbokk yi ne kër yi dafay xumb lool balaa euh, tayi ba jox euh, oustaz mm. jox ndoy baan kàddu gi colin yi colinu xale jigéen ñu ngee ut yàlla te weeru koor kër gi ñun kenn ci kenn jubawu ak kenn mm-hmm. kooku nañ ci bàyyi xel bu baax rafetul baaxul te ku ci jëkk jug ne sa moroom baal ma ak te nga gëm ko yàlla defal la teraanga xam nga xam ah. nga adduna moom adduna mm-hmm. dafa amul solo yàggul de àdduna lu fi nit di xër-xëri amu fi eh. parce que balay yàgg rek netti li ngay doon moo tax yu bëri jaru ko mhm. daw fitna it nag dina tax nit téye boppam daw fitna dañuy wax ne boo nekkee dëkkandoo bu bon soo munta muñ waraab wax na ko ne da ngay tuxu dëgg la parce que tontuwante mhm. ak xëccoo dafa moo gën a yiwadi moo gën a yiwadi tonguwante mhm. fitna baaxul ah am na ñoo xam ne kenn mënul dëkk ak ñoom te yónnent bi nee na ki gën a yées place yowmal xiyaam mooy ki dëkk ndóoram yépp bàyyi ngir fitnaam di dëkk ak nit ñépp di la moytu war nga koy moytu baaxul ci yow baaxul fenn yónnent bi nee na ki ki ma gën a jege place yowmal xiyaam mooy ki gën a rafet jikko xam nga yépp ci jikko la nit da ngay yaru yaru c'est important nit dangay bëgg nit nit doo siis da ngay da ngay nit da ngay social yoo yooyu la fi nit di nekkee adduna bi loo fi siise amu fi loo fi soxore amu fi parce que loo fi mënta yor balay yàgg nett li ngay doon kon li nga yor yàlla jox la ko associé ko ak nit ñi te bëgg nit ñi fitna moo baaxul arab alquran doon la wax ne al fitnatu ashaddu min al qatli fitna moo gën a métti ñu dóor la bal nga dee. Mm-hmm. ki ñu dóor bal mu dee dee na mais dund ci fitna moo métti. day jàpp sa yàpp baaxul day jàpp yàpp yëpp du bàyyi baaxul baaxul dund ci ah. fitna moo xam nga ki faatu faatu na ñu la dooree bal jeex na bal bi sax doo ko dégg nee nañ. jeex na yow yow yow mi may rey doo ko dégg mais dund ci fitna moo métti. subhanallah moo baaxul moo tax alxuraan ne fitna moo gën a tar ñu dóor la bal nga faatu. Mm-hmm. baaxul yal nañu ci yàlla musal yal nañu ci yàlla musal. amiin yaa rabbal alamin ñu ngi nuyu bu baax a baax sunu xaritu oustaz Dieye mhm. ah, kor antak Fatou man noonu laa ko noonu laa ko bu ma ko waxee loolu mu ree bay bëgg dee mhm. mais mais Ndoye Bane Euh, imam imam Pape Samba Junior si mu ngi leen di nuyu bu baax. imam Pape Samba imam yi phase yooyu. <laughs> Ah, ah, sama xel a ngi dem ci Pape ci euh, Makumba. Mhm. Makumba Al ñu ngi koy bu baax. borom borom bi da koy diw nag. Oustaz Mara moom day dugg sama kër di fa joxe ay ay kii naan comportement yi nii ak nii. Mhm. Oustaz Mara yaa ngi may dégg à suivre. <laughs> jë jëlal jëlal ki ci ligne bi doy baax nga dellu si. Ah, ok maaleykum salaam. Mhm. sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. allo allo oui. allo. allo ñii. ñu ngi lay dégg bu baax. waaw eh, Eva na def. sant yàlla bu baax. man la frère Marème Cissé. frère Marème Cissé mu France. waaw. ah yow yow sunu nijaay nga sunu xarit nga. waaw waaw dëgg mais man. Mhm. da nga ñaar ñoo xam ne daal su ma leen def maa yàlla rek ko xam. ndeysaan. ñaar ñoo ñu toog. waaw mosuma toog ak ñoom. mais toujours maa ngi leen di déglu. Mhm. dëgg la. bu baax a baax surtout tey moom. Mhm. dëgg la. ay mhm. eh, ndegem yàlla moo am ay tolof tolof eh, moo yonent bi moo am ay tolof tolof. sallallahu alayhi wa sallam. waxantuma la moom lu nekk fakasal bu ne def nañ ko ko moom moomu toog. est-ce que est-ce que yàlla rek a fi nekk. na nekk na nekk si li mu nekk rek. dëgg la. yàlla dong fi ne yàlla dong fi ne lu borom wallaay dooy baal moom lu ne dégg na ko mm-hmm. <laughs> moom itam noonu fii Sénégal moom noonu la rek noonu la rek mm-hmm. mais fi dee fu mu téye mm-hmm. yàlla jàppale leen amiin amiin leen di sant di leen gërëm amiin amiin amiin amiin vraiment jërëjëf sax. ndeysaan am na solo. Ah, Sénégal muy réew moo. moom waxoon naa ko ñu ngi ñu nuyu bu baax a baax. Uh-huh. kor kor euh, Sana Camara uh-huh. nijaay uh-huh. Sana kamara taa Marème Cissé ma nga ca France waaye du ñu fàtte taa Kumba Cissé itam. suñu soppee ba ca États-Unis Ndoye Bane joxoon nañ la ay carte yu ma bëggul nga bàyyeegum. suñu suñu soppee bi man na ko. suñu soppee bi waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. Sénégalais <coughs> su la dee critiquer rek xamal ne yaa ngi dox. Ah. Hmm. waaw su la dee faqastal tamit jéem a faqastal xamal ni yaa ngi dox. d'accord ku doxul kenn du am sa jot. Hmm. bay wax ci yow. Hmm. dossier bi ma jox ci wàllum col mi. da nga da ngay gis da ngay gis comme comme les dames de valeur yooyu daam yooyu. naa nañ la maa dem ci taybaas nga ne. ci taybaas waaw yenn saa ci ca laa jëm. yenn saa ci koor gi nga gis ñu sol ay taybaas yu baax yoo xam ne <laughs> soloon ji na ko gën a sedd. am na ay taybaas yu doy waar yu yu gone yu sol am na ci taybaas yu seere yoo xam ne da ngay daje moom ci dëkk bi. Mm. mu lay daan mu sol ko ba pare naan la damay sellal. naan la damay sellal. léegi les dames de valeur. yooyu nee naa leen ku ci am ay ay nag yooyu noonu nañ ko denc ca conférence. la ñoom Awa Dia boobu ñu ñu ñu nar a def king fat su nen nen kii daal dames de valeur daal ñemewuma leen. waaw seen seen conférence boobu daal ñoom la jël fan yii <laughs> waaw. mais d'accord nga ci place ban ko non place ñii ay <laughs> mooy def lu mel noonu mhm. organiser conférence mhm. bind say lettre yónnee ko say nit ñu baax ba pare dem jël palaas bu baax mhm. woo fa ay nit ñu baax woo ustaas yu baax ñu waxtaanee leen lu baax yow kay yóbbu ko ci fashion rek non non yóbbu ko ci oustaz yi fashion. waaw waaw eh, ak ak Chérif Mamine ñoom lañu woo pour ñu dem waxtaane waxtaan. Mamine Aydara mu Cheikh Seck. waaw waaw. Ah, mais c'est du ma wax lu sedd. man tax man bàyyi man loolu ko fi sax nag. Mm, mm, mm. voilà man yooyu ma neex. dem kii fat baare woo tali fattoo kenn. ñoom ñoom seen conférence yàlla nañu ko yàgg def gendarme yi jabaru gendarme yi. wala officier gendarme yi. am tali defuñu kenn dara. dëgg la waa Futurs Médias salaamaaleykum ñu jël waaw ay maam yi bu baax bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay. maa nga ñu ngi sant bu baax. leen di gërëm rek wala ko bi leeru quoi oustaz Taïb rek laay yàlla nga maa ngi lay fay Cheikh bi maa ngi lay fay. waaw jox ma ko ko. mu ngi lay dégg waaw maa ngi lay dégg. waaw jox ma ko oustaz na nga def. sant yàlla alhamdulilah ça va kay. alhamdulilah naka liggéey bi. ñu ngi fii jàmmare kii alhamdulilah jàmmare kii ñu ngi jégalu dafa mel ni ligne bi moo dem. jabaru gendarme yi. dañuy dem ut seen salle. le 19 ñu ngi waaj def seen conférence. du ñu baaree tali. xam nga defar ko ba mu baax. Euh, zone de captage am na ñu fay def euh, euh, conférence yu mag. Mhm. mais ca biir jumaa ja lañ koy def. dëgg la dëgg la dëgg la. imam ba def conférence bi. Mhm. yàlla mi benn ñaari conférence fay am. ci kaw te tali baa ngi noonu. ak ak hmm? oustaz ah, ne yow itam am ah. nga conférence. man damay am conférence sama buntu kër chaque année. dëgg la. Hmm. damay def conférence damay def marmé dikk ren itam am incha allah le dama leen di invité xëy na xëy na bon publicité wu ma ku <laughs> invité il faut euh, am soppe yoo xam ne mhm, mhm. am bés ndax ñu ñëw c'est ça c'est am soppe mhm, dara boo ko tuddee ñu loolu am na waaw man damay damay def damay damay def conférence chaque année ren maa ngi koy def le 26 incha allah damay def conférence damay def marmé dikk ñay ñëw ci conférence bi yëpp foofu la ñuy ndogo ci kattanul yàlla waxtaan jël ay man jël ay ustaas ñu waxtaan mais suñ paree ñu def man bi di kër mm-hmm. am na ceebu ginaar am na ceebu yàpp <laughs> am na tàndarma am na bisab <laughs> lépp dafay am te ñu di ko def nag fii sabilillahi kese nag moo tax ñu koy sama xel itam ñu leen ci invité ñëpp ah. inshallah te dafa ma ko bëgg a laaj oustaz nekk ci koñ bi mm-hmm. am fi jumaa mm-hmm. am fi imam bu leen di jiite ay at ku sëy bu am problème ci koñ bi ñu woo imaam bi mhm. kuy tudd woo imaam bi mhm. ku dee ñu woo imaam bi mhm. mais tey ji su jeeg ja dajaloo ni dañuy conférence dajale seen xaalis bu baree bare bari imaam ba ci seen bi ci ginnaaw lañ koy teg duñ ko jox kàddu ñu dem woo beneen nit fay ko xaalis bu bari mu def conférence bi te li conférencier bi li muy wax imaam bi ci koñ bi. moo ko ko gën a xam dàq ko waaw mais mais moom. d' accord am na mbeew mais man euh, en tout cas ñu ci bëri ci sunuy conférence ñun man de sama koñ imaam yi ñooy toog premier. waaw ñooy ñaan ñooy premier. Mhm. xëy na dinaa jël oustaz boo xam ne dina conférence. Mhm. xëy na dinaa def commentaire. mais loolu miyaandu ngeen jël téléphone. moom nag dafa am lu mu lay annoncé danaan téléphone. wax na dëgg wax jël ko. allo allo allo salaamaaleykum. allo maaleykum simila bisimila bisimila ci wareef. salaamaaleykum. waaleykum salaam rahmatullah. maa ngi leen di nuyu ñu ngi lay fay. allo. allo ñu ñu ngi lay déglu bu baax macha allah ñu ngi lay dégg. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu sel bàyyi télé dafay déglu da ngay wàññi wàññi wàññil sa télé. bu ko mhm. defee nga mën ñoo dégg bu baax. di nuyu Oustaz ak Ndoye Bam. Mhm. ñu ngi lay mhm. boppam. di nuyu Oustaz ak Ndoye Bam. waaw wa wàññil télé bi wàññil télé bi ne ci yow. waaw wàññi naa ko. aywa bisimilah. ñu ngi lay émission bi neex na torop. ndeysaan jërëjëf. ñoo bu baax nag. ndeysaan. Mhm. moom maa ngi dama am sama njëkk boo xam ne dalaa laa bëgg torop. ndeysaan waaw moom nu mu tudd. Njóoba la tudd. ak Njóoba ci boppam. kookoy sama maam. Njóoba waaw. neen Jóoba maa ngi koy ziar bu baax a baax moom moom dem na doy baan aja dafa am dafa am dafa am dafa am imam bi man damay wax ne imam yi ñooy kilifa diine yi imam yi ñooy kilifa diine yi ci ñoo lay tudd mhm. naka noonu ñooy takk sa yi mhm. naka noonu ñooy jullee nit ñi mhm. kooku ko joxul ci xamoo li xew mais su xaalis naree génn ñu tëb leen non non ñeneen jaaduwul jaaduwul ci loolu jaaduwul imam dafay am cër imam sax dina am cër boo xam ne bokkul ak conférence mhm. cëru imam du conférence imam cëram du woo ko mu ñëw nga di ko jox xaalis pour mu conférence la imam bi nga dëkkal sa cër rek moom du loolu mhm. non non vraiment du loolu maanaam doy baan imam dépassé loolu mhm. ci ci sama gis-gis euh, Adja Ami Fall mu ngi leen di nuyu ñu ngi koy fay bu Paris la France démb daf ma woo ne ma dafa am ñu bari ñu yóbbanti benn question waa France ak tout le monde nga xam ne foofu ci France su fekkee ne yàlla def na munoo woor islam dafa la wax ne la na nga génnee ndogu mm-hmm. wa ala lazina yutiquunahu fidyatu taam miskin ca aaya ba la bokk ki nga xam ne danga nga feebar feebar boo xam ne peut-être mënu yaakaar nu dina wér da nga soxla di naan garab mm-hmm. wala nga magee âge boobu merci ba mënoo mm-hmm. ko boolee koor islam daf ne su la ko yàlla mayee del génnee ndogu di ko jox miskin mu ne ma foofu ci France suñ ko génnee duñ am kuñ jox muy laajte te te xam nga islam li mu bëggoon it mooy jour jour maanaam jour bu ne rek nga génneel ko dogu jour bu ne nga génneel ko dogu ba koor gi jeex muy laajte est-ce que ñoom dinañ ko mën a dajale en global yónnee ko Sénégal. Mm, jox ko ndoy question bu ko ñu bëri jox la. pour mu laajal ñu ko. ñu jox ko doy baan ñu jox ma ko kuñ ko jox rek baax na mais li ma leen di expliquer mooy loolu mun na nekk mhm. d'accord ki feebar feebar boo xam ne yaakaaroon ne dina wér dangay ngay jël garab wala nga màggee ci âge boo xam ne waroo woor soo ko mënee mhm. la islam wax chaque jour génn leen ndog nga jox ko benn miskin mhm. su fekkee soo ko génnee France doo gis koo ko jox dajaleel yëpp mois bi yëpp nga yónnee ko Sénégal fii moom ñu ko fi soxla kenn xamul naka lañ toll ah, su ko defee loolu ji borom question boobu loolu rek lañ leen di tontu Adja Ami Fall dañ ko ko yóbbanti woon am nañu occasion pour ko ko waaleykum salaam wa rahmatullah salaamaaleykum yàgg naa si ligne bi de ah, ñun duñ la bàyyi nga mer ala ala mer xoola may naa la carton wi saabu balaa waxtaan wee jeex nga fexe ñu jël la bu ko defee mer bi jeex mhm. kontaan naa ah loo wax ci ñun tata kontaan naa maa ngi leen di woo depuis France. la France. waaw dama mel tonton day baax parce que dafa ñëw ba France te fekk yow ma. def na lu rëy maa ngi ñëw nationalité la maa ngi ñëw. d'accord maa ngi lay xaar ngeen def. ñoo ngi fi. may remercier mami. ndeysaan. di ko nuyu di nuyu yow tata Eva tonton day baax. ndeysaan. sama papa boobu toog. Mhm. ndeysaan mhm. kontaan nañ vraiment ci émission yi yéen a ñuy yee franchement. Mhm. Tata Eva yow moom toogaayu tata Digam rek nga toog. wallaay ndeysaan est ce que yàlla may gudd fan. amiin amiin waay amiin. soo tombee ban aussi neex na ma trop parce que dëgg li rek lay wax. lépp lu mu wax rek. c'est la vérité. franchement. ñu kontaan ci émission bi. merci. waaw euh, bëgg a wax tuuti ci thème bi aussi parce que ñun ñi nga xamante ne aussi yàlla dafa dogal euh, ñu nekk fii bitim réew. Mhm. doon ay xale aussi. Mhm. weeru koor bi jotee aussi suñu kër bi yëpp dafay dem. parce que boo nekkee Europe li nga war a joxe suñu koru koor ak ki nekk Sénégal sax dafay wute ñun sax dañ koy wutale. Mhm. ma nekkee Sénégal mën naa joxe sama benn somb tuuti mais que nekk Europe ñu ngi koy lu rëy. Mhm. di la xas li nga joxe ñu xeet ko alors que loolu bu dëgg sa du yoon parce que ñun a fii des fois dafay metti ñu koy nëbbu suñu parents yi dañuy nangu. Mhm. wax leen vraiment des fois ñu yeewu ko daan daw xam nga bu metti mais bu ñu suñu yaay bu ñu woowee suñu papa ça va ñu ngi du ñu nangu wax lépp parce que sinon ñoom dañuy inquiété wu. Mhm. voilà mais koo may mu xees loolu di dëgg fa du yoon. Mhm. koo gi jotee ñun ñun ñëpp dañuy tiit ku nekk naa yónnee nga. ngi exercice franchement. Mhm. Euh, lu baax la. mais bu ñu demee ba ci yóbbu ci minute aussi rafetatul takkaan. ñu rafetlu émission bi bu baax yal na leen fi yàlla bàyyi. amiin amiin

ndeysaan ndeysaan ñu nit ñu ngi lay béggee bu wér yal leen yàlla defal jàmm amiin waay Eva um, mu ngi wax lu lu daw yaram mm. dëgg la tamit lu ñu leen di dëggalal ndax xam nga ndegam tukkee tiis waxuma laa dee mm. dëgg nit ki dafay am loo xamante ne mënu ko mm-hmm. te ñoom ña fa nekk nit ñi man dama jàpp ne senegal dañuy fàtte na ñoom dañoo dëkk mm-hmm. ci ay kër yoo xam ne dañ koy fay ah dëgg la de ñoom dañuy fay gaz mm-hmm. dañuy war a dund dañuy fay ay impôt dafa am mm-hmm. leneen ak leneen lu leen war nekk ñu fa ay gan mais dañ fa dëkk di dund comme koor gi ñun ni ñuy dundee di fayal xale yi école am say soxlawu bopp war a sol yére war a sol leneen sedd bi di ñëw seen mm-hmm. manto yi dafa cher mm-hmm. nga bëgg ci boole yow jox fii sa famille wu bopp ndax sa yaay tamit dina la tegal liste boo xam ne ay mbokkam lañ bëggul ñu xas la nga war a jox sa famille goro ñoo ñooñu tam bëgguñu ñu xas la vraiment daal mbir mi metti na nañu ko li ma waxoon rek ku sa yàppum bopp Ndiaye wax de. Hmm? waaw olof Ndiaye lu ku sa kaan xaw ma lan. ku sa yàpp bopp réer làmbal sam kaan. merci beaucoup. gis ne ñëpp am problème vraiment euh, dimbale ma daal du forcé dëgg dañuy wax ni ne alhadiyatu ma tabat bihi nufus maanaam nit kii lam lay jox na fekk xol ba attan ko xel ma moo yëkkati ko jox la ko. loolu dëgg mais daal forcément daal ci dimbale ma daal neexatul wax dëgg yàlla. joxu jéppi lay neexatul waaw joxu jéppi lay doon waaw. Mhm. kon loolu baaxul. Mhm. loolu baaxul ñu bari ñu ngi leen koy jox joxu jéppi. ñu ñuy awo fili. Euh, soxna sa Omar Ndoye ca France. Mhm. Euh, awo fili Ndoye waaw moom moom wareef jotee euh, commencé rek moom ma nga toog jàkkaarloo ak moom ak awa Pantin ñu ngi leen di ziar baax a baax. ñoom tamit kenn dara gënu leen sol dafa dafa am ay jeeg yoo xam ne ña nga France mais liggéey liggéeyuñu dañuy toog euh, uuf njaboot gi mm-hmm. di jàppale seen borom kër mm-hmm. mais Sénégal turu maa nga France moo rëy mm-hmm. maa nga Amérique maa nga Espagne maa nga Angleterre dafa rëy mais xamuñu ndax man maa ngi liggéey wala liggéey ñoom Sénégal ñoom dañ koy kaas de ay yóbbante yi li may wax ni ay yóbbante yuñ ma wax la da nga yónnee fii nit xaalis du la bu su ko jotee du la waat sax ne merci jot naa ci dañ koy encaissé rek ni teg mais parce que loolu maanaam doo accuser réception. non non te loolu a yónnee numéro bi kay ngay dégg kar kar mais boo ko yónnee moom li nga ko yónnee da koy xeeb. naan xoolal cuubu VIP rek la ma jëndal te nee man mi nekk bitim réew jëndal ko ko man solo guma VIP man ba tey ndax amaguma occasion mm-hmm. sol ko. Mm-hmm. ndax amul ci ligne bi ñaar ñii mm. ak Mia dañoo war a baalu àq ñu baree bare mm. man atum leen li ma wax ne ñaar ñi ñu xamal seeni cin ci réew mi ñu nekk. Mm. Mm. Ah <laughs> salaamaaleykum wa rahmatulah. sama sama yëf bi bu ko defee rek njaay yéen ni xoj la. <laughs> jëlal ci bi noo def. Mm-hmm. sëñ bi noo def. liñ bi dem na. Ah, parce la nga fi doon wax lenn moo taxawul. Mm-hmm. Sénégal a ngi de dañuy jékki-jékki rek wax lu taxawul. Mm-hmm. ah booba nit a nga naan mami Linguère dama ko ree bay bëgg a dee. maa dem ba maa la maire ba fekk ñëw ba àgg ma. Mm. ne ma ana ewa tara. Mm. ma ne ko ewa tara nga fa. <laughs> di ngeen xamal macha allah ñu jërëjëf eh. Diop ñu ziyaara bu baax a baax waa kër yi. Ousmane Diop euh, nijaayu Mor Niang boobu. Mhm. dafay conférence moom tam ca Castor. mais mhm. bul jaaxle conférence bu ma ano annoncé rek maanaam jël nañ ci mhm. matuwaay yi war. Euh, conférence ca Castor muy samedi samedi bii di ñëw euh, ki koy animé nag di oustaz Samba Diagne ndar-ndar bi moom itam ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax. waa kër Mor Niang ca Castor noonu lañ ko bindee. Mor Niang ñu may dawal Adja Awa Ndiaye itam ak Ndey Ndooy macha allah ñoom bàyyi dëdd na waaye ànd bi rafet na. moo tax am na kër yoo xam ne mhm. danoo bokkoon borom kër borom kër gi dem ñu ñu gën ko rafetal mhm. ba boo fa di duggee yow boo déggan boo mooy tuulee sa bët yi taa masha allah yal na yàlla dolli jàmm ci kër yi daf may jox sunu taaw bee ca Touba rek Cheikh Diop jëkkëri Xadi Baara waaw borom këru Xadi Baara boobu doomu meer loo xaritu ndoy baan kooku du taaw buy taaweeku ndax boot na ay rakkam ku ko weddi laaj ko ko jaag loota ak soxna may ak euh, caat mu ndaw xam nga Eva yi ngay wax ni dafa am solo mhm. gis nga da ngay gis kër goo xamante ne taaw comme li ndoy di wax booy dimbali nit na ko yëg waaye def ko ci bi mu ko soxlaagul ndax boo xaaree ba mu soxla ko gis nga làmmiñ wannul lu gën a dis oustaz dimbali ma tamit dëgg ci xolub ko jóge mm-hmm. Mm-hmm. lu gën a wow xolub dajalekatu alal mooy koo xam ne su bu xëyee dégg soxlatu du ca jéem dara mm-hmm. dafa am ñoo xam ne bala ñu laa dimbali rek mbete nga demee bay sukuraat te nit ki doo ko dimbali ci jamono boobu am na taaw yoo xamante ne xam nañ ni ñii bàyyi leen yoroon dëgg la bàyyi dëddu na ñu jënd ceeb jënd dëwlin jënd la ca war a dem lépp mhm. ñëw wàcce ko ca biir kër ga fi sabili laa mhm. defal ko si ki nekkoon ak mhm. seen yaay salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf allo allo salaamaaleykum da ngay wàññi tuuti sa télé allo salaamaaleykum allo allo allo allo ñu ngi dégg bu baax. waaw Taïb waaw cheikh bi. alhamdulilah. alhamdulilah maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. maa lay ziar. ñu ngi delloo ziar. waaw bali ni. Hmm. affaire euh, thème mhm. euh, alhamdulilah c'est bien. Mhm. mais euh, est-ce que si ñoo defar ci affaire koor. Mhm. rafetul. parce que di tuur ndogoo ay mag ñuy ñëw di feccaki ak yooyu kooku yëf yooyu jaaduwul. nañu nañu jàng alxuraan walla ñu teg lu nga xam ni lu lu méngoo koor la. Mhm. Ah, waaye di di tuur ndogoo kii di def ki yooyu rafetul. Mhm. ah mhm. yi daal woor ba mu jégg 40 jours te kenn du leen dégg duñu duñu def sketch di waxtaan di wax ay yu ñorom yu ñorul ah, ay magum jëmu di fecc di def kii la loolu rafetul. Mhm. waaw maa ngi ziar bu baax Ndoye mhm. Bane. jërëjëf. Euh, ak mhm. ak euh, mami. ñu ngi lay delloo ziar papa ziar euh, na mu tudd soxna. Eva Eva. Eva. E-, maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. di leen ziar bu baax a baax. jërëjëf maa ngi nekk maa ngi tudd Alassane Diagne. délégué de quartier Mermoz deuxième porte. macha allah waaw. jërëjëf man euh, Magu Golbert Diagne laa. macha allah. waaw mhm. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen sant bu baax a baax. jërëjëf waay tey alhamdulilah ngeen wax ci affaire koor yi ni ñuy waxee ci affaire euh, ay magum jëmm di fecc ak. Mhm. di taa di taaxuraan ak. pour mhm. ndogoog bi yooyu loolu rafetul. jërëjëf xam nga am na lu ñuy tuddee. fawaziru ramadan. xëy na ñun fii bariwul lu koy def fawaziru ramadan. Uh-huh. xëy na mën nay doon ay sketch. Uh-huh. mais xam naa ci façon bi ñu koy defee rek lay doon. Uh-huh. xam nga nag ñun Sénégal fii. réew la moo xam ne suñu aada mooy fecc ñun lépp lu ñuy def rek fecc moom bu ci bokkul loolu defe naa ne loolu suñu aada la ñun Sénégal fecc moom dëgg la defe naa ne lépp lu ñuy def keroog xam satu mi ngi ko nekk lépp lu ñuy def bu ci fecc bokkul fecc fecc mooy suñu culture Sénégal mhm. xam naa moo tax sketch yi ñu ci boole ay fecc mais ah, fawaasiru ramadan mhm. doon na loo xam ne lu am la mais l'essentiel na doon na jàngale na jàngale lu am njëriñ loo xam ne leçon la boo xam ne bu ko nit ki yi kee dina maanaam dina ko yokk waaye fecc moom ci sunu culture la bokk mhm. lépp lu ñuy def defe naa moom moom mais bu ko seetloo mhm. jigéen ñi ah fecc moom defe naa ne Sénégal mais l'essentiel li am solo mooy na yiw dëgg la secc na fecc na yiw am na lu ñu tëddee raxsatu dabkiya bokk ak raxsatu baaliya raxsatu dabkiya mooy fecc moo xam ne da ngay dukkat du dukkat yiw na. <laughs> ndeysaan <laughs> waaw waaw xam naa xam naa Baye. Baye ci ci ni ko tey bu waxee. abordé ah. na ko ak beaucoup de pédagogie. wax dëgg yàlla ah. xam naa euh, dafa doon bëgg. ñu def ko ay thèmes. def yëf yi ay thèmes. nit eh, ñi nag indi diversité. Mhm. ñi foog na nii la ñuy bëgg ba mën a reetaan loolu nit ñi ak yooyu. Ah, pour wàññi coono coono bi nga xam ne njaayeen yi dañ koy nekkee waaye danañ ci bàyyi xel bu baax a baax. taabal parce que li lim ci seetlu c'est important moom it vraiment ñu ngi koy ziar bu baax sunu sunu papa jooju mm-hmm. mais nag il ñu xam ne tamit gaa yooyu loolu mooy seen métier dëgg la seen métier lañu yor di ci liggéey ci la ñuy teral seen njaboot waaw comme ni ñu ko waxee dañ ko gën a rafetal mhm. mais sketch yi tamit euh, mu mu mu mun te ñàkk nag wax dëgg mhm. yàlla mhm. nañ xool naka lañ ko mën a defaree ba mu ba mu jekk léeg nga fa nga ree ba fàtte ne heure dog passé na c'est ça <laughs> c'est il faut ñu xam ne ñooñu loolu mooy seen métier parce que quelque temps la bëriwul c'est des comédiens bëriwul loolu mooy seen métier su fekkee nag da ci am lenn loo xam ne nag tamit daf day day xaw a euh, yàq tuuti ci diine jéeg ñu yiwal ko ñu yiwal ko nit ki métier euh, dañ dañ ko dañ ko war a respecté ci métier macha allah macha allah oustaz am na loo doon gis naa nga yëkkati loxo bi mm, baan di mm, wax mm. am na loo doon bëgg a dolliwaat. lan la woon lan la woon ci. <laughs> non non bi mais bu muy wax naan nanu nanu recadré bu dee am na lu ñu ci recadré waaw maanaam ñu mën koo yiwal wàññewu dara. parce que ramadan lépp yiw la. dëgg la euh, te dafa am lu ñuy tuddee fawaasiru ramadan dafay faral di am. Mm-hmm. boo demee ci dëkk yu bëri miki lañ koy def ay miki. am na yoo xam ne doon métier mais ay sketch lay doon ay magu jëmm ñooy toog di def ay jeux yoo xam ne mais li ma bëgg wax mooy ñun Sénégal suñu culture mooy mooy mooy mooy dugg mooy dugg dafa am kii waaw mhm. wa rahmatullah waaw maa ngi leen di nuyu ñu ngi lay fay di nuyu Mami dëgg la di nuyu Ndobaan. Mhm. aha mhm. Mhm. nuyu Oustaz. macha allah. di leen gërëm. jërëjëf. allo. allo ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg. seen waxtaan bi am na solo. ndeysaan. mais xam nga lu ma bëgg ngeen waxtaan. waaw. damaa bëgg ngeen waxtaan ci affaire jigéen ñi. jigéen ñi. waaw seen greffage ñuy teg. greffage yi nga xam ne dañ koy ñaw. doo mun jàpp. Ah. doo mun a sangu set. ak xeesal bi nga xam ne xale yi yëpp ñooy xeesal. Mm-hmm. bëgg naa ngeen waxtaan ci. incha ak xale yi dem guddi. Mm-hmm. ci baal yi. Mm-hmm. fanaan di ci hôtel yi. seen waajur yi gis ko. xam ko. te duñ ci wax. incha di gërëm nag ndoobaan ak oustaz parce que li wax am na solo trop. ndaxte réew. ñun ñoo ko war a defal surtout maa ñun jigéen ñi. surtout maa ñun yaay ñun bàyyi. surtout maa yaay sax yaay moo yor kër. dëgg la. waaye xale bi ñuy def moom dañ ci war a wax bu baax. Mhm. rawat nag xeesal bi ak kerefaas dañ ci wax parce que ñu doo doo naa da ngay julli. Mhm. doo mën a jàpp njàpp njàpp bu sell. Mhm. loolu loolu dañ ci wax. incha allah dañ ci wax bu baax a baax a baax a baax. incha allah maa ngi leen di gërëm di leen sant seen waxtaan bi am na solo. jërëjëf. waaw neex na am na solo. ndeysaan merci beaucoup. Mhm. léegi gars yi. am na solo léegi sax gars yi mbaxana lay doon. gars yi yeewu nañ léegi sama genre gi yëpp bu ñu duggee ci kër ga bopp bi bul xool. <laughs> nee naa la barki dee mu waa ji damaa woo téléphone ne ma yéen a ngi wax. ma ne ko waa mu ne ma man sama jabar damay torturer ndax bu duggee ci kër gi ñaari góor a fay ne. te moo ne waxal nga ko fi sa bopp. ma ne ko nee nga yow boo simmee. léegi bu xale nga doom. sa sa jabar nga gis su ma amoon man bu ma <laughs> bu la woo téléphone <laughs> oustaz sant yàlla xam nga ndeysaan am na yoo xam ni ñun soxna yi dañu koy def maanaam sopp dara daganal ko mhm. waaye ñoo gën a xam ne mhm. daganul ah, dem nañu ba verni bi ñoo ñoom Eva Tra dañuy jël ay xalaal mhm. naan verni xalal waa oustaz xam nga waa xalal waa verni oustaz ma ah. wax la tey nag ah. nañ ko waxte dee ña toog ci plateau bi tey def verni xalal mm. loo wax ci ñoom mm. xaw ma lu ñu dama lay wax kay ki may yend chaque jour sama oustaz mm. mbay sene baloo bu sëriñ boobu mm. neen ma keroog mami jël ah. yow mën ngaa wàcc yàlla doo doo màgg mukk ba dangaa mm. <laughs> la yaa ngi cokk cokk loxo yi daal doo ko ma mu ne ko sene ma yow yaa say daaga buñ yàqal nga Eva def ci eh. koor waaw gone gu jigéen gu ci yemul bala ñoo wari say say say mbokk dinañ la mere en tout cas doy baan yaa waxaat bi last bëggee maa ngi koy rappelé las sa béggee la ko booy tudde hmm. ñoom booy yi ndax dinañ gise ba la ñuy woo booy bi nañ gis nee na mbaa du yow non non non non ah man da man du wax ma dara man ma laaj non non man man man hmm. dama arrière cassette bi rek di wax ak booy yi cassette bi laa arrière rek dama ko arrière vers les années voilà li aju ci wàllu yiw oh, waaw imaam may ko mu ñëw waaw waaw ndoy baan weeru koor benn weer la ko ce que amul ku fëgg baax na am na ko fëgg salaamaaleykum maaleykum salaam mbokk mi bismillah waaw ah, ñu ngi ci jàmm sant mhm. yàlla. harikalla. jàmbari kay. Mhm. ko. waaw yow la ñuy dégg seex bi. ah naa ngi ci jàmm. sant yàlla alhamdulilah. maa ngi mhm. nuyu Ndoye Bane. ñu ngi lay ziar bu baax. nuyu ñoom ñëpp. ndeysaan. émission bi neex na lool. jaajëf macha allah. maa ngi ooyee département Malem Hodar Ndoye Bane nag yow yaa ma tax a jënd sax télé ndax pour di la déglu dama la daan déglu sa rajo léegi loolu doyul ma jënd télé pour fan la la gën a. bàyyi bàyyi li ngay wax. li ngay wax moom. seet jënd nga télé jënd nga télé ndax ku ñaaw waaye tabarkaar nga ko jënd man yéen ñaar lu ngeen gën a xuloo ma gën a kontaan <laughs> liñ bi tey tey moo xëy di ma moo nag xanaa ah. juboo nañu naa waa juboo nañ naa naa sama xarit naa waaye naa guddal fa <laughs> dégg nga las su bégee li ma la bëgg a yëgal ma la a mooy weeru koor <laughs> weeru benn weer la ci fukki weer ak ñaar benn bi weeru koor li la yàlla digal ci weeru koor moom ngay def meme bu koor gi jeexee ah, xam nga weeru koor dañu ne la'allakum tattaqun mhm. aaya bi daf ne koor gi dina la jox taqwa dina la jox ragal yàlla bu baax parce que daf lay tere daf lay tere lim la daganal mu ne la bàyyi li ma la daganal pour su passé li ma la tere li ma la araamal nga mën koy bàyyi mhm. kon koor dafay dugal ci yow taqwa mais daal koor gaa ngi ay last bégeeg korite jeex na ak yooyu daal yooyu daal yaa ko wax ah kay xam naa xam naa li nga bëgg a wax xam naa li ngay wax non xam naa li ngay wax yow yow yow wax oustaz may ma tuuti ma wax ak ndoy ba foog ne da nga xëy rek nekk pa man oustaz won ko sa bopp bu dee last la man dama dégg anglais attention waaw dama lay wax rek béggee wolof la wolof la waaw mais imam bu leen ma yàqal li ma doon laaj oustaz wanal ma Ndoye Bane. waaw kay ne yow mi ah. fekkee nga before and after mu ngi ah. noonu de man ci dëkk bi laa dëkk xam nga ko def xam nga li ko mooy <laughs> weeru koor. weeru koor dañ ne la lasti bége daganul parce que ah. suñ ne la weeru koor suy jubli si war a tuub Mmh. yow au lieu que tuuboo ngay def leneen loo duggee ci koor gi. ah gis nga loolu loolu baaxul. et puis il est fin maanaam li nga ko li nga ko tëral mooy tax ñu mun ci waxtaan layee ci ñeneen biir. buy ñëw da ngay tuubaat. Mmh. gën a jéggaluwaat doog ci mmh. ah. ba koor gi ñëw nga def bàkkaar pour duggaat ci biir. mais loolu kenn xamul. yàq ko ca gannaaw yàq ko ca yàq ko ci kanam merci beaucoup. waaw waaw bëgg bi yëpp mooy ndax dinañ gisee bala ñuy woor. ku la ci woor loolu la lay laaj. léegi yow kii woon ma firil ma las bëgg bi lan la. las bëgg bi dama ndoy baan bu ma yàqal. xappi bay nelaw. waaw d'accord xappi bay nelaw Mm. am na fii foo xamante ne nii daf daan ubbi 4 heures du matin di woote xëdd. Mm-hmm. mujj gi mu wàcce ko ba 3 heures. Mhm. daa wàcce na ko ba 2 heures. Mhm. te boîte la. waaw mhm. kooku bu ñu ko seetaanee ba déwén. dina tëgg minuit. waaw xam nga beneen bi ci topp mooy gars yi yëpp gis nga fi mu toll nii. gone yu njóobeen yëpp 10 jours yu njëkk yi rek la ñu respecté une semaine yi. su passé wee commencé nañoo lijjanti nu ñuy def ba korité. ndax nag xam nga lu tax. xaal bu lu suur ba jant ba mu desub xaal. xale boo ko yenee lu mu attanul mu wuti lu mu amul. nañu waxante dëgg. nga bëgg a jël xale bi bëgg ko yan léppi kër gi. bëgg ko yan leneen kaay a xëddi te ñëw nga ne ko bul guddee demal te ñëw yàlla na saw yoon neex mhm. mu ñëw indaale la li ñu war a ndogoo suba baaxul baaxul baaxul salaamaaleykum wa rahmatullah mhm. dafa allo dama ne ki woote wax la ko sànq. waaye mm. kenn fëggu la. Mm. Mm. ndax 10 euh, minutes ñu dese woon dañ mm-hmm. lay bàyyee li nga doon àggali. nga mm-hmm. àggali ko daal di. xam nga dañu dañu am yoo xamante ne nii. yaay yi tamit dañu war a taxawaat. Mm-hmm. waaye bëgg na njabootu kanaara laa yor naa leen jiital ndax yow xale bi sa lépp ci moom nga ko wékk dafa am loo xamante ne war waruñu ko nangu. waaye nag xam nga suñu demee nag ba borom kër di koor kooru gàlle. boo ñëwee ci biir kër gi ne soxna si damaa woor mm. ne njaboot gi damaa woor te boo demee ci appartement meublé yi mbaxallu mm. def lu sa dëxin bu saf mm. ràcc ko ba ca kaw am maanaam beneen appartement bu wuutee kër ah mooy yàlla moom xam nga damay laaj damay laaj may laaj appartement yoo xam su dul koor moom la yenn famille jël di fa mbaxal di tama su dee koor la tama ji la ñuy ñàkk waaye lekk tama ji la ñuy tànn ma la ñuy denc waaye mbaxal maa nga fa fii ci dëkk bi appartement yi i seen i càmmañ ñu ci bari ñi ngi ci snap bi fa la ñu wootee man man ni ma bañ a góor yu yambar yi man yambar yi ne ci snap te xoolal ñi ci ñu dul woor yëpp soo duggee ci snap bi di nga leen gis kër yi ay appartement la mais snap nag léeg-léeg bon mais xam nga li am nga woor am solo ci weeru koor dinañ la si ma place da xale yi jigéen ñi ñu mbaxal fa nga woo la ah yaay dépend yaay ah non ndoy dañuy mais ki war a woor ah dëgg ma ngi ñëw ah non ah non ki weeru koor intéressé non ndoy baan dama lay expliquer wooru ñu ci bari wooruñu ah. seen kër la ñuy wooree nekk kër non non mais ñu bari ngi woor da ci am xale yi jigéen yoo xam ñëw sëy benn yoon tas mm. uti appartement yu baax ne fa mm. su dee su dul koor nee naa la tamala ak mbaxal te góor ñooñu. ñooñu ba du xale yu jigéen go jant du leen laal. mel na ñuulu ñu ne Eva. dee naa la mooy xale yu architecture yooyu ma lay wax. seen appartement yi benn góor koy fay kilifa yi koy fay. ñi koy fay am nañ benn ba ñaari jabar yàlla may leen wërsëg yow nag soo yaakaar ne yow kese yaay fay appartement bi fekk nax nga sa bopp xale yu jigéen dañ ci am juróom yu mel ni yow. am féex su weer yu dee ku ne joxe 500000. loolu leneen la ca la mbaxal di def seen affaire. loolu leneen la mais weeru k moom jotee ki nga xam ne moom vraiment am na iman fas yéene woor hmm. kooku dina woor hmm. ah. ñëpp nag maasewul àdduna maasewul am na ñu ah, dul woor am na ñoo xam ne seen yoon newu ci dañuy mbaxal seen yoon newu ci mais dama la wax ne la am na ñoo xam ne ñoom ñi gëm dafa neex de doon ay jullit dañuy woor loolu moom ñu bàyyi ci xel ñooñu sax li ñuy waxal sax de mais ki nga xam ne moom mu ngay mbaxal yi na dem uti nitutum denc ko moom <laughs> dagan na ñun ñi nga xam ne dañuy woor suul ba suul li ñuy wax ndax wallaay borom borom jëfi farisi ñuy waxal ñooñu waaw voilà ñu ngi leen di sant di leen bu ko amul woon mais na ko wuti na ko wuti wuti ay bagages noo ngi mbokk yi gis ngeen li mooy li mooy seen émission wareef xam nga ne mbokk mi yow mi toggoon tey ca suba am koo mere wala am ku la merloo mm. boo toggee jàkkaarloog équipe wareef wax ma ndax dàkkuloo sa stress mm-hmm. àdduna nag foofu la toll lu lay metti baye boo def ko sa bànneex jàll ci leneen bu fi kenn sonal boppam ci leen mhm. àdduna yàggul te yàgg yàgg fi lan koo bàyyi mhm. ba maam damay dee dégg nga ni àdduna dalay may mbër la bés bu ne mu euh, terrassé naka wallaahi mbër la moo xam ne ba mu lukkee koo ba nga kenn daana ko te su ma gum ah. xëyee terrassé ku la man très bien léegi su ma la doon wax nga tàggatoo mhm. ku la bu la waa xanaa dellu di waxaat leen rek ngi woote le 26 waaye waaye xam leen ne mami Diop moom wax dëgg yàlla mbaarewul mbeddum kenn mami a njabootu bopp lañ ñoo ma tax di xëy ñoo ma tax di gont le 30 incha allah Thiat Diop mi nga xamante ne mooy présidente association wax jëf jàpp na ko démb ñi ngi ko yëgal Sénégal gépp di wax ne nag woowuñu kenn pour ne lii la wala laa mm-hmm. mais ñu bëgg ñu ñëw ñu dem fekk ñoo ñu nga xamante ne mm-hmm. wallahi lazim kaso day day mbir moo xamante ne nii mm-hmm. jombul ku yàlla bind ndax ñoom ñoo nekk ci liberté mais ñun ñii ñoo nekk ci lu ñu xamul ndax ñoom teg nañ leen def bàkkaar teggil nañ leen leneen ñun nag suba bu ñu xëyee ñi ngi ci bàkkaar mën def lu ñu yóbbu ne bula bi dama ko sargalee waa saabu saf ndax comme ñoom ñoo ñëw ànd ak. non may ma ma gestu ani gestu bi waa waa bleu bi ànd na xam nga bleu bi kan laa ko tuddee Adja Marème Faye Sall bëgg nga woo recevoir ma ndax damaa bokk ci réew mi eh, te maa eh, ngi yëngu ci eh, action yi réew mi te sept ans ngi nii may yëngu ci jigéen ñi nekk ci mm-hmm. prison yi mm-hmm. ak seen doom yi ci naa bokk mm-hmm. man war a servir ma servir ñi ma yaakaar woo ma ma toog mi laa bokk man Mamy Diop ko demandé nag mais dafa jot ndax juróom-ñaari at ku koy yëngu ci réew war ngaa woote dellu di waxaat ne kenn gënu leen waa Sénégal juróom-ñaari at ci lan sept yoo xamante ne maa ngi ci association bi di def lii may def nii

lépp ba ñu waree jàmm ak salaam. Mm-hmm. mi ngi ci 78 176. ah baal ma baal ma Eva ma génne waat numéro bi demal ba ñëw ma jox la numéro bi nga joxe waaw acca Ndoye Bane waaw fooy tàgg tubaab dem na France di di félicité mami ci liggéey boobu mu ne mhm. waaw nit mhm. moom da nga so yuusu dani ma mhm. am réew soo ca nekkee da ngay fexee bokk ca way wa loolu dëgg la te yaakaar ne maa nga ca way wa moom ak yeneen i morom ak ñu koy jàppale yëpp di tàggu ñëpp rek di nuyu sunu xaritu xol bi naa ñu koy ziar waaw sunu xarit ma ak mami ñi koy ñaanal rek mu yàgg fi loolu te wér di nuyu tuuti maane di nuyu madame Derviche bu baax a baax a baax sunu yaay jooju awa ca Pantin ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak awa a baax ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew rek eh, bu baax a baax a baax jeeg yi nga ne nag eh, njëkke yi nga xam ne dañuy fàtt seen jabaru frère yi mhm. ñoom daal ku ñuy fàtt sa jabaru frère rek yàlla bu boo am koor très bien la 137 69 75 c'est parfait 78 137 69 ma ngi ci Pikine wala ko mu defal xanaa di am mbégte di am mbégte di kontaan di ñaan yàlla. koor yaa ngi koy nuyu. Adja Ami Fall maa ngi koy nuyu. Euh, démb démb rek la ma woo di ma posé question bi mais ne ma ñu bari dañ ko ko yóbbanti pour mu woo ñu. pour ñu wax ñu ko. Mhm. mais daal ñu ngi nuyu ñëpp vraiment di ñaan yàlla ñu dugg ci koor gi. Mhm. génn ci ci alhamdulilah. Mhm. mais maa ngi leen di invité sama euh, conférence. jërëjëf incha allah dinañ ci ñëw. incha allah mbokki téléspectateurs yi yéen itam yëg naa ci yéen ña nga xam bépp yaay boo xam ne ma nga toog ci biir këram mhm. te bu ngoon jotee mu daal dee togg ndogu bu doy génnee ko ci kañ bi joxe ko ci sutura ne ku ne foo dëkk am na koo xam ne ma nga dëkk ak yow xam nga ne mu toggee mhm. yaa ngi dox ci moom ci sutura sutura boobu nag nit di dox yal na ko yàlla fayal boppam ndax yàllaay aji faye ku mu fay ku ne nga matle ñu ngi leen di balu àq di leen baal àq bu mhm. baax di remercier équipe technique bi eh, équipe technique bi nag ki ko jiite dafay Miya Ndour Miya Ndour ñu ngi koy wax jërëjëf di kontaan ci ñoom jili kontaan ci ñoom petit ñoom ba Babacar ñoom am ak képp koo xam ne daal jàpp nga ci liggéey bi ba mu yemb mhm. Eva Tra nag di remercier itam Bamana Couture ndax nee naa li ma neex ci Bamana Couture bokk na ci seen ñaw yi nga xam ne dafa intemporel mhm. yére bii def na ñeenti at waaye bu ma ko solee saa su ne mu gën a bees maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne yàlla na yàlla dolli ñu jàmm ci biir kër yi dolli jàmm ci biir xel yi dolli jàmm ci biir xol yi ku ci ne jëf ju baax janga nga nar a def bu la ko dara teggiloo mhm. laay fayanteeg moom déedéet yàlla may na la gudd fan may ko gudd fan pour que nga prouver ko li gën a rafet ci yow bàyyil ko souvenir bu rafet moo gën nga bàyyil ko souvenir bu ñaaw mhm. yal na nu yàlla jéggal suñuy bàkkaar may nu gudd fan ba nu teewaat fi encore suba incha allah waxtaan ak yéen waxtaan bu gën a yaatu mhm. ànd ci toujours ak sunu xarit Tayib Socé mhm. jërë ngeen jëf fi amaanillah merci beaucoup